من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر mbooloo mu gannaaw lu jul lu ñu sant yàlla julli ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam ngi leen di nuyu di leen sant ñu daje bi ñu ci woote jëm ci waxtaani diine ñu waxtaan yi ñu tànn moo boo maanaam siise boo xam ne bokk na ci yu gën a itteel jullit ci rawat nekk jamono bi mu toll jamono bi mu toll mu di mbirum yar muy li ci gën a tiis ñu gën cee janoo yàqu-yàqu gën cee bare te muy loo xam ne ci la adduna lu aju ak àllaaxira muy loo xam ne ko nit sàgganee amatul dara ndax amatul diine ko amul diine ñàkk nga sa bopp ndax ñàkk nga yàlla ñàkk yonent bu kon ñàkk nga sa bopp mu di loo xam ne daf ko am jàpplu nga adduna ak àllaaxira ndax mooy saaru diine diine bi dul ñu yar nañ ñee ko indi yar gi muy yar nit ñi tàmbale ko ca ndoorte ba ba nit di jóg ci kaw suuf bis bu nekk bind bu tooy bis bu nekk fu mu toll alxuraan ànd ak ñun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak ñun ñu digal na ñuy jëfe ñu digal na ñuy waxe di ñu leeralal suñuy jaar di ñu wan ngaañ yi ak yàqu-yàqu yi ak yu ñu moyandi ko ñu di ko moyandi bokk na ci li tax lu gën a itteel ci mbir yi ni ma ko waxe woon mu di jaaxle bi nga xam ne xeet yu mag yi di boroomu kàttan di boroomu alal di boroomu xam-xam di boroomu pexe jaaxle nañu ba dellu gannaaw teg ci seen ngem ni mënuñu ci dara muy yàqu-yàqu jamono di li ñuy war a waxtaane ak lislaam moom naka jëkk nan la gise yar ak nañ war a doxe ndax ñun noo koy doxe wala doxewuñ ko li indi yàqu-yàqu yii lan la lan moo ci xalaat lislaam ak nan lislaam tërale woon yoonu bañ a yàqu-yàqu bañ a am jaar ci yoonu jub gannaaw xeet yëpp dem nañ ba jaaxle mënatuñu dara ci jaar bu seetee réew yi gën a développé mën nañu yàqu-yàqu fa la tàmbalee fa la ci saanoo tàmbalee ko ci xale yu gën a ndawe ba ca mag ña xale yi toll école primaire di jàng dala ci seen juróomi at ba ñu am fukki at ak nangam fa yàqu yam ñu àgg fa moo di lu yàq xelum doomu aadama ba tax du doon nit ñi di ko jëfandikoo mu di dorog xeetu dorog bu mu doon mu di xeetu ndëggute bu mu doon boo demee Amérique boo demee ñu soviet yi ñu rawat réew yi topp ci ñoom ci développement topp ci ñoom ci yàqu ñu dem ba xamuñ lu ko waral ñu ne xamuñ lu ko waral xamuñu lan ko war a mën a dindi lu réew gën a développé lu xam-xam gën a bare lu ñu gën a jàngale moral lu professeur yi yàqkat ñu gën a bare tribunaux yi di gën a fees ak ay dossier procès yi gën a mag bandi yi di gën a développé seeni pexe di ànd ak développement ba ndëngte tàmbalee fa mu waroon a ñàkk fa yëpp waroon a commencé loolu lu ko waral bi ñu yàlla bindee doomu aadama yar ba nga xam ne moom dong ko mën a defar fii ci adduna ñu teg ko fale ak suñu kër loolu tax yàqu-yàqu bi seet delluwuñ ci li yàlla bàyyi woon xel tëral ne mooy solo doomu aadama delluwuñ ca loolu du dañ ndax nit ci wetu addunaam bi muy jàng fu mu toll ndax njëriñ lu teewa ndax ñoo di njëriñ ndax jëñ lor dem na ci ku sori doomu aadama yi ngi dem ba ca weer wax dem nañu ba nit ordinaire day toog saalam bés bouton li xew ci adduna lépp mu di ko dégg am lu muy serale ñamam lu koy téye la yàqu buy tukki fa gën a sori ci sori ba fa gën a sori ci kaw yomb ko la mu dox ko ci biir bu gàtt ba maa dama di dem ba mën a xot ci biir dindi jàngoro yi sa nekkoon ñëwaat ko borom bi dugg ba maa dama di dem ba mën a jàlloo dënnu nit la ne ci biir ci liggéey lool ak na mu ko war a jugee ba maa dama di dem ba not li ñuy wax nag ni not géej gi di ci jaar not jaww ji di ci jaar nga xam ne nit koo xam ne ci ci am amam bu digg doomu rek la toll bi koo xam ne ci jamono yenu weesu moo gën a dund boo ba yilifee woon foofu nit dem ba àgg fa ci wetu xam-xamu zahir ak ci wetu matière te mënu la fexe ba nag boppam mënu la fexe ba yar boppam mënu la fexe ba jàmm am ci kaw suuf mënu la fexe ba nit ñi jub mënu la fexe ba xuloo xeex wàññiku mënu la fexe ba ñu tëral gànnaay yi benn at wala wenn weer fo toll am na kuy reyal ci kaw suuf fo toll am na xew xew yu mag fo toll am na ay tribu yoo xam ne ay nit da koy def te mënuñu ko dindi mukk loolu da ko waral wat ci yoon wa ñu waroon a jaar yoon wa rëddoon nañ ko keroog ba doomu adama nekk ci kaw suuf adama ci boppam alayhi salaatu wa salaam di sunu bàyyi bu fekkee ne dañoo dellu ci waxi borom xam-xam yëpp day bari te day gudd ndax moom ci boppam rek dana mën a nekk conférence ndax adama ay nit jiitu woon na ko ña ko jiitu woon ni ñu demee woon ak nañu ne nan la leen diine gisee nan la leen xam-xam gisee ba ñu ne aadama mooy bàyyi ñi ci nekk ñu ñu ci kaw suuf dana gudd te day génn kon turu waxtaan yi ñu ne ba ko suñu borom indi ci kaw suuf tuddee ko xalifa mu wuute yàlla ci kaw suuf bis boobu la xam-xam juddu bis boobu la yar juddu bis boobu la diine juddu aadama xam ngeen ne yonent la woon xamoon na yàlla di ko xamle xamle xamoon nañuy jaamoo yàlla di ko xamle xam amoon nit nit ab yar ma sëkk yar kon ci nit ñi ñu considéré maanaam ñi tax ñuy wax bu ñuy wax mbirum diine tàmbalee ca aadama teg ci ay doomam bu ci ay sëtam mën nañ ne kon ba ñu tàmbalee seet li ñuy dund ci kaw suuf maanaam li ñuy bayee lu ñu lekk ci kaw suuf li ñuy wujje lu ñuy naan ni ñu xamee garab bu war a indi lu jëriñ doomu aadama ci kaw lekk wala ci kaw naan xam rab yi nga xam ne yàlla indi leen ci kaw suuf nan lañ war a jëf jëfante ñoom ñun ci war a indi ci suñu kër di ko jëfandikoo ñun ci war a rey lekk ñun ci war a taw ak ñi nga ci xam ne dara na lu ñu ñu jëfandikoo leen bis boobu ñu xam ne loolu lépp xam ne jumtuwaay yi ñu war a bayee yi ñu war a togge yi ñuy daggee yi ñuy taal yi ñuy defee yëpp bis boobu nga xam ne keroog la xam-xamu adduna tàmbali keroog it la xam-xamu diine tàmbali keroog it la xam-xamu yar tàmbali ndax yar ci diine la dugg kon xam-xam dafa war di mag ànd ak sub yar waxtu xam-xam demee wàcc yar doomu aadama yi ñàkk jàmm ci kaw suuf bu ñu deewee dem safara te fitna la ñuy nekk ci kaw ci adduna bi bañ ci jëf waxtu woo xam ne ne itam ab yar jiitu nga xam-xam lor jaa gën a néew ndax jàmm danaa am fitna dana am tuuti waaye jàmm dana am waaye li gën na rafet ba tax suñu borom ne laqad xalaqna al-insaana fi ahsani taqwiim daan ko wax bu ñu ba ci kanam moo di xam-xam bi ak yar bi ak jikko yu rafet yi maanaam yi nga xam ne ñoom la diine indi àndandoo ne not ci kaw suuf maase benn bi ci jiitu moromam du sooxe boobaa texe ci àdduna ak bu àllaaxira daal di mat sëpp doomu aadama du si dugg ni mu leere ba nit ko xamul diine am njàng nañ jàng di fekk xelam ba ne conscience sans conscience nekk ruine de l'âme xam-xam bu àndul ak conscience mën nañ ko tudde fii nit ku amul njub boo xam ne dafa am xel mu rafet mu koy digal di ko tere di ñaawalal ci moom lu bon di ko sopp loolu rafet nit ki nga xam ne dundee wu ñu ko dundee rek bu amul loolu xam-xam ba mu am bépp du def lu dul ràppal valeur am ràppal ak ruuxam ràppal ak xolam nit bu yaroo zahiram day jub rafet biiram jub rafet mu nekk ci dëgg nekk ci njub bu ko defee mu ne ci jàmm ne ci yiw ne ci aafiya nekk ko ci këram nekk ko ci réewam ja ànd ko nit ñi bu dee ci bàmmeelam itam nekk fa jàmm jooju ak xéewal googu ba mu dekki bu dekkee foofu dugg àjjana cooloom dal di jeex dund bi muy dund ci kaw adduna moom mi yaram dafay nekk di ku ñu warmaal ndax yaram boobu di ko tedd ku ñu fonk di wut koo xam ne di ku ñu wegle ci diggante nit ñi mu demee ci biir nit ñi ñu gën a yaru mais wurus mu ñu tëgg ba mu rafet takkaay li mu gën a topp ci wàllu taar ak takkaay ni mu demee xànjar ak përëm lu kooku noonu lay demee ñoom ñu seet dund doomu adama lu gàtt la gàtt boo xam ne ñàkk solo bi moo ko raw ndax doole bi ci doomu adama am ñàkk kattan bi mu ñàkk kattan musiba balaa yi fitna yi ak coow yi ak soxla yu bari yi ak ñàkk bi ak tawat ak yëpp fekk ko ci ci biir biir bu gàtt boobu bu ñu ko seetee ñu ne bu doon lii rek te ba tax amul yóbbal xeeram amul daanaka jarul woon dund jarul woon suñu borom bi bind nit jaru ko ndax bu ñu seetee suñu borom ni yonentam bi wax alayhi salaatu wasalaam ci fonk bi bi mu fonk bi adduna ak ni mu ko fonkee fa mu ko teg bu fekkoon ne dundul nit lu dul pour mu dund rek ci kaw suuf li ñu wax tanaa ko maanaam contradiction mooy am ndax dund gi kon jarul dara jarul woon a bind nit kon nit du jar dara ndax nit ci tey la ne weesu na démb ëllëg ak bu démb ci mu weesu lu mu si mënoon a am ci bànneex lu mu si mënoon a am ci ndëg lu mu si mënoon a am ci noflaay bu ëllëgee mu weesu ko rek desee ci ca dara fàtte na lépp kon mu mel ne jaaru ci woon loolu moo tax ñu ne àdduna bi ñu ko seetee laafu yoo su waxoon laafu yoo bu ko gënoon a diis kon suñu borom bu ci matal ab noonam fii ci àdduna benn nit woo wala benn nitub kon bu ñu xamee loolu dañu xam ne war gar la ci ñun bu feddaliku ñu yar suñu bopp yar suñu njaboot yar bu ñu yar suñu bopp ak yar bu ñu yar suñu njaboot farata la ci ñun farata mooy lool ku ko def am tiyaaba ku ko bàyyi am bàkkaar te it xàq la ci ñoom njaboot bi waral maanaam seen droit la boo xam ne suñ ci manqué dara yomal qiyaam danañu taxawal topp ñoom suñu njaboot ci poñen ndax xàq bu ne xam ne ko xàq moo waral li yàlla sant lépp doom ci waajuram ndax xàq jee xàq yi nday gën a métti ndax ëmb musin nampal saw def ka bine boot coono itte yoo ba su feebaree nga feebaroon ñoo gënal la ko loolu lépp kenn mënu koo fay tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne al jannatu taxta aqdaami ummahaati ajjana mu ngi ci suufu dëgguy ndey kon dootu xaq tiis gi mu tiis nit mënu koo fay ngay gërëm ba ku sa wajur mere ba dee ca mer ma te dabaatuloo ko fa nga jëm baaxul bu xaq yaayam weesoo xaq yi bàyyi topp ci xaq yi jigéen ak borom këram mën naa ñu am wax occasion waxtaane ko lu mu jigéen ci détail yi li wax moo di nit ki na jëkk a yar boppam ndax bu yaruwul du mën a yar keneen bu yaree boppam ba noppi na yar ca bootam jëpp bu bàyyi ko ëllëg bu la yor ñoom ñëwee ko ci kanamu yàlla ñu fab ci ay jëfam yu rafet tuyaaba ya fayee ko ñoo ñi mu amee xaq bu ko defee ñu mucc mu mucca bi te loolu dara gënu ko yar nag mooy lan yar bi tax ñuy wax mooy yaru islam ban sa doom da nga ñëw jullit nga war na la nga yar ko yaru islam yaru islam mooy lan da nga ko war a xamal diine nan nga koy xamale diine nan ko mosal fekk diine ba mu sax ci moom bu boobaa day dugg ci xolam day laaj ci ay ciram day neex ci moom nii nga xam ne noonu la waa sow ñu fexee ba suñu doom yi football théâtre cinéma neex ci ñoom ba laaj seen i xol ba laaj ci ba mënuñ koo mun diine moo ëpp cax ka moo ëpp faram moo gën a neex bu ñu fexee nit képp koo xam ne fexe nañu ba cax ka diine dugg ci xolam dana ko bëgg bëgg koo xam ne dootu ko mën a mun loolu nag mooy sababu pexe mooy sababu mucc fii nit ci àdduna ci am na lu def daan dugg ci détails yi bu ñu demee ba ci kanam kon yow diine boo ko yaree sa doom sabab nga ak pexeem àdduna ak alaxira gannaaw loolu yokk nga sa pexe yow ci bopp sa yow sa bopp ci moom ndax nit ki bu fi jógee bu dee maanaam ba ñu suul ko jëfam yépp dagg na gannaaw ba tax moom bu fa dundee lu dul liñ ko fay liñ ko fay du dara lu dul li mu liggéey ba andee ci liñ sànni illaa maa li mu jëf ngir yàlla donc sa teg ko ci kaw sunna gannaaw yooyu yëpp ñu dund di gàtte te liñ ciy jëf du bare ndax yaa ngi sa liggéey boo xam ne sa mbir àdduna nga koy doxe yaa ngi boo gëm ne soo war a nelaw léeg-léeg nga tawat di am ay soxla ak ay diggaale nit ñi yooyu yëpp nga bëgg ko koy jëf bëgg see jëf lu la jëriñ foofa ak ni nga yàggee ba sax waxuma laa yor ci bis tey ji ba ni nga yàggee ba sax loolu lépp te li ngay jëf dama koy jëriñoo boo amee jëf yoo xam ne bii da nga dee ba nga ci jëf-jëf moom continuer ñu di leen indil tuyaabaam ci sa bàmmeel war na koo xeeb te yar sa doom yaru lislaam ca la dana la di ñaanal bu jullee bu yaree keneen wala mu def dimbali keneen koo xam ne yoon nga ko jaarale yow yaa ko sa jaarale woon moo xam da nga koo jàng joxe jàngu ñu jàngal ko mu xam lislaam jóge ci di jàngal ñeneen tubaab yi yëpp day law di la fekk si te kat gannaaw ba ñu ne ña deewoon nekk ca barsax buñ leen di woon mëbët leen lu ngeen gën a bëgg rek ñu defal leen ko duñ wax lan la lu dul ne nañ ñu delloo ak donte benn minute la ndax ñu mën faa jëf loo xam ne buñ jënd seen mu jëriñ ñun nga xam ne ki leen di ñaanal ki leen di sarax ñetti xulwoo lu mu néew ñëw foofaa leen gën a ñëpp daañu fàtte ñëpp ba mu def ñooñu kon ku nekk fii ci àdduna dima boo war nga farlu kon yar boobu nga xam ne boo ko yaree sa doom ak pexeem ci la taxaw te it yéen sa bopp sa pexe mën na cee dolli quoi te boo ko deful sa pexe bi wala sa coono yomal xiyam mën na cee dikk ndax gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñun ñëpp kenn ku ci nekk ab sàmm nga te kenn ku ci nekk daañu la laaj la nga doon sàmm bis kon loolu bokk na ci taxawee war dara li gën a war buñ ko sàgganee nag ñun ñëpp ñu sàggane suñu doom kenn bañ yar kenn ku nekk xam na ne léegi jamono bii bu naqari la ndax waajur yi amuñu jot bu xëyee huit heures leen maa ngi liggéey ba mu dina war boo ñëwee war a noppalu ni ma ko daan waxe boo ñëwee gannaaw noppalu bi boo fi bëggee déglu ay rajo bu gisee lire ay journal ah bu gisee nelaw tuuti jox julli gis baax doo fi jot sax ci la war a yar nga di ko gis wala ngay toog ak moom bu ko defee da ngay dal di gont soo gontee boo ñëwee bu dee ko ami soxla mu jàdd ca ñenn ñi nga xam ne kenn yaru leen woon ba ñuy xale làggaluñ leen ci wetu diine jàdd ca bëlëb ba wala ca danye ba wala ca fubba ba wala feneen ak lu ñu mage mage ak dootuñu ko mën a bàyyi kañ ak ci ban jamono la yar doom bu ko jot ñàkk jot googu ak daw bi ñëpp daw jëm ci àdduna gas na kan mu rëy mu xóot te yaatu diggante mag ñi ak xale yi duñ toog amuñ jot toog waxtaan ak ñoom ba léegi ay jàmbur la ñee ñee di jàmbur ñu daanaka ju ragalante ñii rus ñi ba ragal leen ñii ragal ndax ñàkk a miinante kon duñ leen mën a wan yoon ba loolu tax ah xale yi dem fa am ay yenn ci mag yu am complexe seen kanam ñu naan ñii seen tàng ñuy naat yëpp mu di ay gànnaayu seytaan yoo xam ne ay nit ñu yàqu ba noppi di wut ku ñu yàq ñoo koy dugal ci seen bopp naan tàng tàng luy tàng jant bi mu fay jóg mooy sant bis bu nekk ñu ñëwee soppiku nam daan mbir yëpp daan am ci asamaan si lay am ba tey weer yi noonu vingt quatre heures vingt quatre heures léegi mbir yi yàgg yoon yàgg ak seconde yeeg heures yi ba tey dara changé wu adduna bi mu fi soppiku nit ñee ko soppi te gannaaw yàlla dafa aj lépp ci seen volonté ak seen jëf ñu ñu mel ñoo ko ni melal jamono yàqu na waaye leen yàqu yàqu nit ñi lekk ko yàq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax yëpp naan bu ñu demee ci genn jamono moo di nit ñi dañuy bàyyi diine ba def leen jaral dara bu ko defee yàqu-yàqu ñëw song leen du ñu am nag gànnaay bu ñu xeexee moom ba delloo ko du ñu amit xam-xam bu ñu mën a tëral ba jaar koo xam ne daañu waxandi ko yàqu-yàqu boobee yàqu-yàqu di gën a bari di gën a yaatu di law ba li may wax naan ñun dañoo xam te ñoraguñu ndax mën nañ ne réew yu mag yi nga xam ne réew yu tubaab lañu li ñuy wax développement dañoo développé ba àgg koo xam ne ci yàqu développement bu ëpp ba boo ko indi donc xeet nañu ko dañoo bëgg fu fu toll bu yokku waaye àgg nañu fa kon ñu mën ne ayib jooju ak xëm la dañoo ñor fa xëm ñun nag ñoraguñu bëgg xëm ndax toppandoo nit seetlu la baax ci moom lu toppandoo ko ñun dañuy seet na muy sale na muy tuure ndox na muy demee cabine ñu ciy yées daal la muy tànn ah loolu moo di xam te ñoragoo kon war na seet ne bu ñu tàggat leen bon bon xale yooyu nga xam ne dañu leen def arab yi wax ihmal maanaam bàyyi leen abandonné leen bañ leen a yar bañ leen a yee bañ a waxtaan ak ñoom bañ a ubbi seen xel bañ leen a xamal yàqu-yàqu jamono ak nañ ci war a jëfe ak nañ ci war a taxawee wacci leen rek nga xam ne mbedd ne leen di yar ak roman yu bon yi ak télévision ak seen morom yu yàqu ak bon bon yi jóge feneen ñooñu fu ñu dajee mooy li ñuy tuddee al maxuur mawaaxir mooy béréb bi jaay jaay bi ñoom ñooy formé ji boîte de nuit ñooy formé ji groupe yu bari ñooy formé ji bandi wëyu yi nga xam ne ñooy dox mbedd yi yoon yi ak di cambriel di di sàcc guddi dugg ci ñeenti jaamu armé ñu jëpp xale yi nga xam ne jaara ñu ñoom fañ leen waroon a jaarale fañ fa tolloo ñoom dong ñooy indi yoon te loolu yëpp di ko indi moo di li ci gën a bari l'islam dañoo xam aspect bu gën a kawe bi seete ko nga xam ne ah melo rek la nu mbubboo ko ba ko fi jaar ne noo gën di julli ci àdduna te sunu xol yi lañu ci l'islam sant lu war ko cee def lañ ci war a dugal lañu war a jël lañu war a fonk lañu war a fonk di lañu war a fexe ba génne ko ci sunu xol yi lañu war a fexe ba puutal ak lañu war a fexe ba réyal ko yëpp defuñu ci dara l'islam bi kon bu ñu xoolee duñu solo ndax nekkul dëgg dëgg l'islam l'islam ji sallallahu alayhi wa sallam indi woon mooy l'islam ji solo nit bu dem ko ci kanam daan wan ne daan wan ne l'islam jooju moo dem ba convaincre tàmbalee convaincre tubaab yi dem ba nga xam ne dana lu universel la adduna bépp lay daje ndax daañu dem ba xam ne lu dul moom du dara ñëpp daañu dem ba xam ko nun nag yàlla baax na ci kaw lu gaaw ci dugg waaye nag seetlu ko nan ko war a seete ba jàpp ko nan ko war a jàppe ba mu ba mu melal ñu nan war a mel loolu moom àgguñu kër waaw ñooñu bu fekkente ne ñooy daje nekk nit ñi ñàkk solo seen jotaay yi ñu tuddee ko majalis shaqaaw mooy jotaay yu texee bi boo fa toogee du dégg lu dul lu bon lu lay puus jëme ci bon lu lay fàtteloo lépp lu baax lu lay tàyyelu lépp lu baax luy lu lay puus ba nga àgg ci koo xam ne da ngay rus def lu baax wala nga rus ñu jullit laa wala nga am complexe boo xam ne dana la puus ci nga naan luñ la xaraamalal nga naan ko déglu luñ la tere nga déglu ko di toog ci jataay yooyu dañ laa tere nga toog te loolu lépp dara dina ko waral lu dul woyof gu ne ci yow woyof gox dara lu am solo ñàkk nekk ci sa xol bi ak sa xel nii moo la ko yóbbee te loolu lépp la mu sababoo mooy ñàkk yar guñ la ñàkkoon yar kon bërëb caay caay mbooloo caay caay yooyu du mbooloo nit ñi ñàkk fayal moo xam ay mag la ñu wala ay gone mooy bërëb yi texee bi ñu fa nekk ñu jaar yoonu texee bi lañ te képp ku leen di fréquente képp kuy ñëw di fa toogaale ñoom wala ngay jaxasoo ñoom ñu di la xëcc jëme ci mbon boobu rek waaye sa konte ne ba mu jógee jaaraloon nañ ko waa moom war a jaar du bokk ci ñooñu du fa jaar waaye seet nañ ne nit ñi ak buñ ci yàq li ñu tuddee yàqu mooy xa yàq daf laa wala sama rëy mi xatama la ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adabun azim nit ki feeg jëmagul ba àgg ci dootu dégg waar boo koy wax lu jëm ci diine wala li ko wax lu jëm ci dëgg da nga koy xatal bu dootu la bëgg a gis ñu daw bu dee bu wax ba wees ko ko du daw daf lay jéem a kay yow sa bopp jéem a jëlee ca la nga nekk wala dina jéem a complexe di lay intimider ci li nga nekk pour la wane ku tardé nga yi ngay wax wees nañ ko yi ngay wax ñu ci démb naa ko waaw naa loolu lay bëgg indi ci sa bopp kon foofu la yàqu-yàqu tàmbalee waaye yooyu yëpp nit ci xamul dara moom lañ gaaw a yóbbu ci loolu waaye ki nga xam ne xam na dara moo am sax am njàng la jàng ak njàng bu mu doon li ñuy wax culture bopp ndaal ubbeeku na yu bari ci lu dul noonu yomb na saa génne yu bari it ci lu jub yomb na xëj ci jëme ja mën na noo constaté ne xale yi am nañu soppiku daanaka li tàmbalee ci première semaine culturelle bi ñu fi defoon ci Dakar dal nañu gis xaat ne am na soppiku yu bari yoo xam ne daanaka mën nañu foofa la commencé te ay xale yu bari yoo xam ne dañu daan def diggante décembre feet yooyu nga xam ne feet nasaraan yi la te yóbbu dañu ci ba nu yàgg ci bu jotee lu dul po bu nekk ci seen bopp fooy yi daan fooy itam du seen foow mu réew ñoom li ñu xamoon waaye foo moo xam ne dañ koo àbbale bu ñu jëlee feneen saxoon na ci ñoom ba di loo xam ne te kon nañu mu mel ne lekk naan duñ ko mën a bàyyi mukk gis nañ ne léegi ñoom dëkk nañu xëy na daañu def lu xaw a nuru ko maanaam luy wax seen bànneex waaye jëme nañ ko ci geneen anam koo xam ne mbirum diine la te luy xëcc jëme ci yàlla la luy fàttali itam la te luy not xol ci ngëm la luy tax nit ci wan gannaaw yàqu-yàqu yooyu ñu doon wax la kon mën na ma gis ne wax bi baax na jóg di dajaloo di nag fexe lu baax ngir lu defar réew mi dana am njëriñ kon bu ñëpp di fee taxaw ku nekk xam ne am nga sax cër am nga sax ci diine ji am nga sax ci réew mi fa nga ci toll rek la nga ci mën nga di ko def dana baax kon topp bu mag a mag a mag dana am loolu soxla yu ma leen ko wax ci ngeen léegi nii xale yi passé ay trente et un Noël vingt et un yooyu yëpp ci ngeen li ñuy organiser ak li ñuy yëngal xam ngeen ne mën nañ ne bari na lu am solo la loolu nag bu ne am njëriñ ndax dana la dëkk nit ki mu wan gannaaw la ko gënoon a gaaw a lor la ko doon lor lor jëkk lor joo xam ne daf ko koy génneel ci anamu njëriñ wala anamu avancement wala anamu yow wala xam dafa dara ñu ko ci ci yooyu bu demee ba xam ne dara nekkatul ca yooyu wala dëkk bu ne mu ngi seet lee gën a jub loolu jéego bu mag la bu ñu jub jëm ci ngëm ndax ngëm mooy ci sànni fu waxtu ne diine diine fondement mooy di ngëm ngëm mooy lan nit mun la dana gëm dara nit ko rek am na lu mu gëm li ñuy wax fanatique itam di ko intimider jullit ñi fanatisme amul kenn ku ca mucc ñii fanatique nañ ci matériel masalan ñii alal rek la ñu bëgg bëgg bopp amatuñ ca xel ndax seen ngor ak seen diine seen dara jaralu leen ñàkk ko loolu fanatisme bu gën a garaaw la ñii fanatique ci doomu aadama de ñoom boo xam ne dafa doon dund ci àdduna am na xam-xam indi ay xalaatam xalaat yooyu yéem la nga gis ne sa njëriñ nga ca nga dem ba seetoo sax njëriñ li waaye ci boppam moo la yéem moo tegu ci sa kaw xol bi ba nga mel ne koy jaabal ay Lénine Karl Marx ñeneen ñu demee ne ñoom am nañu ay fanatique Mahatma Gandhi ñu bari ndax doomu aadama boo bindoo noonu faw am lu mu gëm boo gëmul yàlla rek yàlla gëm loola leneen ñooñu gëm nag nit ne ñoom ñoo am audace dellu si naan la yow nit gëm yàlla wala nga gëm lu jóge ci yàlla ñi di la jéem a gàcceel ak di la jéem a rutloo ngir nga am gàcce ci kanamam wane ne man nangam laa gëm kon ful ku ñàkk ful la la teg moom boppam la jox ful la moom li nga xam ne niwul ci dara mu attane yëkkati ko taxaw ci sa kanam naan la lii nga ne du dara wuruf li nga amee mu ne la du dara àjjar la moom mi amee përëm bi ne la ne la wuruf la ba kon nga ñàkk fayda léegi ku ne xam ne ne l'islam ceer moom bi ñoo ci gën a bari bu fekkonte ne du woon ni nga xam ne noonu la propagation l'islam fa mu jaaree commencé ci réew moo xam ne désert la dara nekk fa nga xam ne booba kenn xamul pétrole mbay la nit ñi daan dunde dara nekk fa xam ne loolu la yàlla aare woon maanaam alxaram yi shérifé yi Makka ak Medina ba kenn colonisé nga gisuñ ko dara lu am njëriñ ñoom colon yi tàngaay wa metti na ay dëkk rek fa nekk amul benn njëriñ bu ñu fa mën a génne ba tax seenu xelmeem jublu fa muy lu yàlla defoon ngir aar leen ba tax ñu mucc ci colonisation mucc yu bari loolu di seete boo xam ne ci biir la nekk l'islam dale foofa jaar ci buñ ko seetee fi mu progressé jaar ba ñu ak fii ci Sénégal ak réew yu dem yépp muy réew yoo xam ne seen situation géographique seen nature foofu mayeewul développement bu yomb loolu di accident boo xam ne xëy na man di accident wu doomu aadama yi yàlla na xeetam muy dëgg loolu tax ñi nga xam ne ñoo muccee xam xaw a dëgg ak taxal ngeen doole ñu seen loxo ñu dem ba am complexe de supériorité maanaam duuf nañu wax ne lu doon nekk dégg ngeen te coono yi nga xam ne moom la nee naa sonn ñu mu duggee moom la dajee loolu nga di di mën a suñ ko nëbb ba wóor gi mu leen wóor am wóolu kat mu jaral leen ñu risqué ñàkk seen situation ñàkk seen jàmm ñàkk seen considération ak mën ñu teg leen ko mu jaral leen ko ndax xam ni mooy dëgg mu leer leen ne dañoo génn ci jamono ji ñu daan wax al qurunul wusta maanaam moyen âge nga xam ne jamono yi lëndëm la woon nga xam ne dañoo umpale woon sax boo waa kaw umpale woon nañ sax pour Muhammad maawun bi lañ daan wax li ñu daan xam maaw sax ba di ko wax maaw me Muhammad maawun bi lañ daan wax ñenn ñi jàppoon nañ ne Muhammad du woon sax nit fekk bu wurf la woon ñu fekk ci kaw waaw yooyu ci benn temple di ko jàpp pour ñenn ak ñi nga xam ne dañuy jàpp ne benn chrétien la woon boo xam ne dafa présenté woon candidature am pour nekk pape ñu baax ko mu daal di mer dañ di wëlbati ku nekk dissident créé beneen secte ci biir christianisme mu di ay umpale yu ñu umpale ñu gis ay borom xam-xam yu dimbale loolu la Voltaire bind na benn pièce théâtre def Mahomet wane ko ci dépeindre ko muy noo koo xam ne ku sari la nit koo xam ne kii ku ku màggat la koo xam ne kii turu diine la doon jëriñoo pour not nit ñi ñoom ñëpp am na ci ñoom ñu dem ba def tam loo xam ne ni dañu wax ne am rëcc la maanaam rek ñu leen war ñëpp nangu wuñ ko wax wala xamuñu ko ñoom ñu bind ko mel na ni ci lamaat ñu bind de changement bi ko waaye ñu nekk ci biir leneen bu ko doole boo xam ne ñëpp dañuy bind ngir xeex islam ñi fa amoon xam-xam ba ñëpp a juddoo muy peuple bi muy xale yi muy aw ji ñuy jàpp Muhammad def ko épouvantail boo xam ne ku nekk xam na ne ci jamono Charles Martel booba français bi tuddoon góol ba tey Abdourahman benn général boo xam ne jullit la jóge Andalousie Espagne dikk dem ba Poitiers di ko Charles Martel bi nga xam ne ne Charles Martel bu ñu ko daataan yoon ni demoon nañu ko bu ñuy tiital xale dañ naan ko Abdourahmane li ñëw dagg sa bopp gàttal daal jullit ñi ñi fi wutu moom nag di def gerteen ak ñëpp ñu jàppale ñu nit ñoo xam ne ñu dëng lañu ay ay président lañu ñoo xam ne dañuy rey nit ñi ngir wut ngóor wala ngir wut alal loolu ñu dem ba génn ci ba ñu commencé nag léegi di yeewu di xam islam ba tubaab yi yu bari di tuub tubaab yu bari am na ay lu leen lu leen teebi ay sabab waaye dem nañu ba mu leer na leen l'islam way di wóor ndax Mohammed Khalid la xam na ne moom leer na ko ne mu tàmbalee Suède wala Norvège ba ñu ak Italie ay millions yi millions musulmans yi yoo xam ne jullit dañu ci seen xol waaye ñemewuñoo fay mu nekk li benn xisa bu gàtt boo xam ne nee na moo ko dund benn tubaab bu tuubam xamal ko moom ak tuubam ci suuf invité ko añ mu ngi bi ñu añee ba pare bi ñu waree julli mu daal di dugg ci biir këram jàll ci ndox lamb jibaam génn benn caabi ubbi benn néeg ñu duggee ci néeg bu fekk fi ay tapis ay sajaada fekk fi ay jullikaay fekk fi kurus ak yëpp mu julli bu ñu duggee alhamdulilah bi mu tëj bunt bi bi ñu jullee ba noppi mu tijji bunt bi daal di mu génn mu tëjaat mu xamal ko ne même booy bi nga xam ne mooy def ménage kër gi dama ne ko ay reliques maanaam ay sunuy yëfi maam yoo xam ne sunuy maam ko moomoon nu ormal ko moom lañ jël ci dëj bi ba booy bale wala ngay fubare wala ngay fëgg bu ci dugg soxlawul nga di ci dugg man maay kii féetewoo loolu ceeb bi ci poosam la koy def moom alhamdulilah ne waaw kii ni muy doxalee lislaam di julli bu woor ñëwee nan lay organiser këram ba du ñu xam ne dafa woor wala waa kër bi dañoo woor wala moom diineem jooju daf koy jàpp moom kese ci boppam bañ cee dugal njabootam wala nan la koy doxale muy kese posé boppam nit yi ni mu gisee ne Paris jullit ña bari nañ fi ay étranger lañu ñu ci ñu ci ñëw ñoo di ay français benn benn français waaye amuñu abattoir boo xam ne dañ ko tëral ci l'islam di rendi rendi l'islam amuñu itam ay restaurant yu leen wóor ne restaurant yi jullit lañu yàq boo ñuy togg lu ñu rendi la rendi bu dagal ganaar yi noonu ak la ñuy naan mu dem ba xalaat ne religion yi daal képp koo xam ne ci tuub nga nekk fa da nga am coono yu bari te loolu lu ko waral moo di ragal bi ñu ragal a feeñ lu tax ñu ragal a feeñ mooy li ma waxoon sànq ci waajur bu tuub ñu génne ko ci naga dàq ko amande ko toroxal ko def ko yooyu yëpp ndax tuub googu mu tuub rek mais bu ñu seetee ne nit mooy dem ba te nekk ci réew moo xam ne du réewum diine mu dem ba xamal boppam ne l'islam kat mooy dëgg benn mu am fitu tuub wala mu ñàkk ko exemple yu bari nañu bu ñu wax Charles Dalla benn professeur la arab Sorbonne arabisant la benn bis ci conférence yi mu doon def université Dakar ñu ko laajee la caractère inimitable du Coran ni mu tontoo wane ne alquran noonu itam te la ko mut bi kaay liggéey xëy na bu ndemee ba ci détaillé wala question yi daan ko relaté li gën a gàtt moo di ne daal li mu tontoo wane ne ne moom gëm na ne alxuraan mu la jógee ci mbindeef ci yàlla ba nga lëg bi ñu ko laajee waaw ne wax naa kon jullit nga dafa ne bu ma doon tànnal sama bopp diine day islam laay tànn ndax mooy diine ji gën a wér mooy diine ji nga xam ne science mënu la dem ba weddi ko ba dindi dara ci lu mu saxaloon te mooy diine ji nga xam ne nit ñi mënuñoo dem ba ne dépassé nañ ko wala ñu gis ci lu ñu wokk ba xeet ko ba di ko bàyyi ndax li ci nit gën a xam rek lu ko nit gën a xam rek daf koy gën a gëm gën koo nangu ñu ne ko nag xanaa yow kon mu ne kon nag gannaaw bu ma dama doon tànn bu ma doon tànn sama diine moom laay tànn waaye gannaaw sama yaay ak sama baay joxoon nañ ma diine ba may gone te damaa fas yéene jàpp diine jooju yow ku nekk xam na ne kon diine jooju mu nekk gëmatu ko l'islam la gëm waaye kon ba tey ñu xam ne am na kon yoo xam ne yi nekk na ci réew yooyu yuy xeex l'islam yuy tiital nit ñi ba duñ ñemee tuub loolu nag moo waraloon jihaad gertan ndax waqaatiluhum hatta la takuna fitnatun dañu waaye ko ne bi ñu ku nuhul jaay dañu bëgg nit ku nekk am liberté diine ji nga gëm nga mën koo jëfandikoo fa nga nekk loolu waaye nit gëm ba noppi ñemewula fay ñemewula jëfe diine ñemewula jëfe la mu gëm ak njubadi la ñëpp xam nañ ne ak toon la loolu nag moo waraloon ci l'islam di guerre kon nag ñun ñi gëm ñu alquran ci yàlla la jógee bu ñu gisee alquran ne wa man yabtaxi ghayra al-islami diinan fan yaqbala min képp ku xam jàpp benn diine bu dul lislaam diine jëkk yàlla du ko nangu loo ci jëfee yàlla du ko nangu inna diine inda laay lislaam li wóor moo di diine ji nga xam ne mooy diine fa yàlla mooy lislaam lislaam mooy leer boo xam ne jii moom la suñu boroom fab teg ko ci loxo jibril indi teg ko ci loxo muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu leeral xol yi jullit ñi wan leen yoon wu ñu war a jaar moo tax suñu borom ne allah nuuru samawaati wal ardi مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة من زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسك في النار. ngëm la suñu borom misaal ba tey xam ngeen ne maa ngi wax ci ngëm maa ngi wax ne nit mënu la ñàkk gëm dara faaw mu am lu mu gëm benn mu gëm yàlla wala mu gëm seytaane képp ku gëmul yàlla rek gëm nga seytaane ak forme boo ko mënee gëmee rek la nga gëm seytaane la ndax dox na sa diggal yàlla tey dana sabab ak texee di ëllëg te bala ngay dee dana la wóor ne li nga nekkoon du dara ndax nit kat xabaar yi wér na yu leer yoo xam ne nee ñu bu ñu commencé xëcc ruwaam ba bëtam yooyu bokk ko jëm asamaan nga xam ne gisatul ci àdduna dara gisatul nit ñi déggatul lu ñuy wax malaayika rek lay gis bu boobaa la muy mujj jamono mooy ay jëfam jëfam yi yi ci borom dana am melaw wu sibu wu raglu wu ñaaw wu xataw woo xam ne dana yàkkamti dee ba bu doon dem safara sax ndax mu noppi koo gis bu dee jëf yu rafet dana am yow melaw yu rafet yu neex yu ànd ak ndég ak xel mu dal loo xam ne du yàkkam sax dem àjjana doon ci wóoroon na ko ni bu woo xam ne du mat muy dem àjjana du ko yàkkam bi ndax rafetaayu jëfam yu baax yooyu la bu fekkee ne njaxas la ndax loolu moo cay am kon nit ki wax boo xam ne nekkatul ci àtte adduna bii xam ngeen ne comme nu ko waxoon ci ay conférence yu bari roo rapport am ak yaram day soxla bu juróomi juróomi état la am juróomi rapport nit ki bi mu nekkee ci biiru ndeyam ba am na ay juróomi weer ruwaan bi maanaam ni mu ajoo ci yaramam waxtu wu juddoo génn ñëw ci adduna day soppiku ndax na ruuga meloom fee nga xam ne ngelaw li du ko upp ngelaw ak a yeewu du xiif ak a tawat ak yooyu ni mu doon dundee xam ne bu ñëwee ci adduna dund gi day soppiku tamaman waxtu wuy nelaw itam bu ñëwee ci adduna waxtu wuy nelaw rapport roo gi dana changé fi digganteem ak yaram bi nga xam ne nit ki dootu xoole di gis du dégg li ñuy wax dara mën na koo laal du ko yëg te roo gi kat mooy yëg kon nga xam ne nekk na ci beneen état bu wute bi mu newoon bi mu dee yeewu kon nga xam ne beneen état ngoo bu ci jógee bu deewee itam ba nekk ca barasa te yow xeer ñëwagul jekkeegul mu leer na le nit ci bàmmeelam bu ca nekkee bu ñu ko dee xéewal wala ñu di ko mbugal yëpp mu ngi koy yëg te rooga moo koy yëg rooga xam nekk bokkul ak bàmmeel ba waaye nit ki mi ngi koy yëgi ci bàmmeel bi comme ci misaal suñu ne woon dafa am fiil bu jàpp ca rooga fa mu nekk samp ci bàmmeel ba nga xam ne lépp li muy yëg mi ngi ko yëgee ci bàmmeel bi waaye yaram ni mën naa raaf bay suuf di suuf ak kese ki ko tiim du gis li mu ci li mu nekk dara waaye moom mu ngay yëg la muy yëg bu dee bànneex bu dee xéewal bu dee musiba bu dee safara mu koy yëg ni nga xam ne kuy nelaw mën na gént gént bu neex wala bu naqari nekk ci musiba wala bu nekk ci mbëkk yow mi ko tiim doo ci gis dara ndegam loolu lay um rawat na nit nga xam ne roo xam nga bartax kon buñ jógee ci bartax itam ba ñu dekki yomal xiyaam li ci ulama yi wax bari na trop ay téere yu jeex la seeni werante ak philosophie ak fi ñu leen yee li tax imam Ghazali yi bind taxasu bi par l'auto description des philosophes ak question yi ñu posé ak ñetti problème yu mag yooyu tax ñu bind ko ak nu mu mën a dekkee rek nit ki ak nan la mën a dekkee ci kàttanu yàlla rek bu dekkee yaram ak ruu dañuy amati beneen rapport bu wuutee rapport yi ñu amoon ci état yi ñu passé yëpp boobaa geneen dund la boo xam ne moo gën a mat sëkk yi passé woon yëpp te ci lay gën a mën a yëge xéewal ci lay gën a mën a yëge itam mbugal ci la gën a mate bu dee ku jëm ci mbugal ci la bokk na mbugalam di gën a tere bu dee ku jëm ci bu boobaa itam nit ki degam bi mu dee nekk ci batax la amat lu kumpa na leen murit ndax kon ku nekk xam ne nañu wax ne masalan roo principe la boo xam ne waxuma roo al xayawaan yi wala waaye nafsu naataqa l'esprit maanaam du am bi nga xam ne mooy souffle vital bi nga xam ne mooy dundal lépp luy dund ñëpp ko am xar yi am nañ ko nag yi am nañ ko bëy yi am nañ ko nit ñi am ko waaye li leen wutale ba suñu borom topp ñuy jëf di leen di seet seen jëf yomal xiyaam di leen sant nangam ak nangam ñu àttan xam lu amaana ci diini principe boobu moo tax may wax ku nekk xam ne ne bon kon loolu gannaaw nit ki moo am principe boobu bi mu jógee ci yaram bi mu tàggoo yaram ndax roo bi mu duggee ci yaram daf mel ne lu ñu tëj kaso léegi seet seet leen ci seen xel léegi béréb bi ñu nekk tabax bi bu ñu tabaxoon fat volontaire yi tabax ko fépp nga xam ne bu jant bi fenkee doo ko yëg bu soyee doo ko yëg doo xam dara luy xew ci adduna bi roo bi mu duggee ci yaram noonu la mel nga xam ne dañ ko yaram daf ko tëj kaso ndax ñoom ñaar ñu antagoniste maanaam ñu féewoo lañu ñu féewoo ñoo xam ne kenn bokk ci sa morom ak jublu kenn bokk ci sa morom foo jógee kenn bokk ci sa morom loo bëgg kenn bokk ci sa morom li lay jëriñ wala li lay lor nga xam ne kon roo mu ngi jógee ci aalamul amri yaram moom mu ngi jógee ci suuf muy ñaari principe ñu féewoo bu ñu dajee nga xam ne roo ci boppam ni mu daan gisee nga xam ne ñu ngi ko bind ci li ñu bindee malaayika yi nga xam ne leeru yàlla la nga xam ne amul kumpa day gis lépp di xam lépp bu mu duggee ci yaram setul dara comme yow mu ñu tabaxoon amul ci tabax boo xam ne amul volontaire amul bunt amul dara ci setul dara mu mel noonu roo daal di feebar loolu mooy adduna kon adduna mel na hôpital yonent yi ñooy médecin yi faj nit ñi cérémonie ak yi ñu indi ni ki façon jaam yoonu yàlla yi mooy faj mi ordonnance yeeg yépp loo xam ne bi lu war a faj ci tabax la nit ki bu fekkee ne mu ngi pratiquer diine mu ngi jëfandikoo ni nga xam ne noonu la ko diine santaane yoon bu ko tracé mu aw ci tabax boobu day gën a woyat di am ay pok pok leeru jant bi di gën di dugg muy gën a leer ngelaw di dugg buñ ko dee gën a toj di gën a toj day dem ba nekk ci bitti jàlloon jant bi ngelaw li di ko ëpp mu jàlloon yëpp naka noonu doomu aadama bi ruuxam boobu di xeex nga xam ne yaram daf ko tëj wet bu nekk bu gën a jëfandikoo ragal yàlla ak turu yàlla ak xalaat yàlla ba tax ba nax ci li nga xam ne mooy am bi man nax bi nga xam ne moom la yaram bi nax roo gi day gën a néew doole di gën a wàññiku ba roo gi dellu espace bi ba xaw mel nam meloon bu njëkk nam meloon bu njëkk du ko mel du ci dee gannaaw yàlla ko mel waaye nit ki mën nay pratiquer adoor maanaam jaamu yàlla yi ba mu xaw a mel noonu ba muy fàttaliku ba suñu borom di bind jaam yi ku ñu wax seen Abdou Laye Sëriñ nee na maa ngi fàttaliku. yow ma alas biram bi suñu borom bindee roo yi te bindagul jëmm yi ba mu leen di wax naan ndax du ma seen borom te roo yi nga xam ne ñoom la yàlla gëmloo bu ñëwee si àdduna ñu naan ah kay balee xam nga roo Muhammad alayhi salaatu wasalaam moo njëkk a tontu roo cérémonial yi ñu indi ni ki façon jaamu yàlla yi mooy faj mi ordonnance yeeg lépp loo xam ne bi lu war a faj ci tawat la nit ki bu fekkee ne mu ngi pratiquer diine mu ngi jëfandikoo ni nga xam ne noonu la ko diine santaane yoon bu ko tracé mu aw ci tabax boobu day gën a woyof di am ay pok pok leeru jant bi di gën di dugg muy gën a leer ngelaw di dugg buñ ko dee gën a toj di gën a toj day dem ba nekk ci bitti jàlloog jant bi ngelaw di dugg mu jàlloog yëpp naka noonu doomu aadama bi ruuxam boobu di xeex nga xam ne yaram bi daf ko tëj wet bu nekk bu gën a jëfandikoo ragal yàlla ak turu yàlla ak xalaat yàlla ba sax ci ba nax ci li nga xam ne mooy emprise maanaam nax bi nga xam ne moom la yaram bi nax roo gi day gën a néew doole di gën a wàññiku ba roo gi dellu espace bi ba xaw mel nam meloon bu njëkk nam meloon bu njëkk du ko mel lu dul ci dee gannaaw dee la ko mele waaye nit ki mën nay pratiquer ador maanaam jaamu yàlla yi ba mu xaw a mel noonu ba muy fàttaliku ba suñu borom di bind jaam yi ku ñu wax Sahel ibn Abdoulaye Sëri nee na maa ngi fàttaliku yow ma alas bërëb bi suñu borom bindee roo yi te bindagul jëmm yi ba mu leen di wax naan ndax du ma seen borom te roo yi nga xam ne ñoom la yàlla gëmloo bu ñëwee si àdduna ñu naan ah kay balee xam nga roo Muhammad alayhi salaatu wasalaam moo njëkk a tontu roo yi ñi war a ñëpp tontu ba yéefar yi ñu forcé leen ñu soog a tontu nee na bis boobu maa ngi koy fàttaliku maa ngi xam ñu noon ci sama kanam di xam ñu noon sama ndeyjoor ak sama gannaaw ak sama càmmoñ ñëpp maa ngi koy fàttaliku bis boobu xam ne kon nit ki diine moo ko traceel yoon yi mu war a jaar pour ëllëg mu mucc yow ma leen ko mal war a doon na illam ak allah bi qalbin salimin bis ba nga xamee ne alal du jëriñ kenn dara doom du jëriñ kenn dara lan moo koy jëriñ nga dikk fa suñu borom teew ak xol bu sell bu mucc mooy xol foofu nga xam ne liggéey na liggéey boobu ba maanaam perkaalam bu weex bi ñu ko joxoon mu di roo bi mu indi ko ci àdduna santé yi ak gàtt yi ak taq-taq yi président maanaam aar ko ba yóbbuwul ay gàtt yu bari wala yóbbuwul benn gàtt gàtt bu mu yóbbaale nag am na fu mu war a jaar koo xam daañu ko fa fóot daañu ko fa fexe mën nañ koo sabal mën nañ koo saabu moo di ay mbugal nit ñoo xam ne ñu mel nit ñi nga xam ne bàmmeel daañu ci mbugal ba seen bàkkaar set bu yomal xaar bu ñu dekkee seen ruu set ñu dem àjjana ak ñoo xam ne loolu bu setal mukk seen i kii ba daañu jaar safara daañu ko am ñetti fan ñi ñeent fu ñu juróom fu ñu am fukki at ba junnee at ba ba ngay set rek feeg gëm nga ne yàlla am na rek dañ ci mën a génn nga xam ne kon ah doomu adama yàlla mi ko sàkk sànni ko fi ay yaxtu bi ñu tam ay taraka su dem dañ def su xam ne ma nii tum naa ma kanaa ak xalaat sawa fa jaale ko dañ jëni zakara wu sa yàlla sàkkul nit rek sànni ko ci adduna lu ko neex def amul benn lu tax mu sàkk ko amul fenn fu ko war a jaarale wala fu mu jëm ëllëg déedéet alquran weddi na ko nit kon bi mu ñëwee am na sax lu mu war a bay bu ko bayee ba mu jeex mucc mu wàcc loolu moo di ak muccam loolu nag ni ma waxee ne yàlla indi na yónni na ay yonent yoo xam ne ñoo ñëw di faj maladie yi te mooy nit ñi war a gëm mooy nuuru samawaati boobu lii ma maanaam ngëm ci xol la nekk xol sax mën nañ ci waxtaan waxtaan yu bari ndax xol am na cër bu ñuy tuddee xol waaye buñ demee ba lii fu diine di waxe xol yu ci bari secret la boo xam ne yàllaa ko xam moo xam suux woowu nga xam ne mu ngi toll ne nëbbu loxo cat bi lu mu tuuti jëmle sa càmmoñ garab ji di ci dugg mu am ñu jàng ci xam nañ ko ak ni mu mu ni deret ci duggee ni mu koy sànniwaatee yooyu yëpp kooku du mooy li tax ñuy wax xal al xal xol xol bi ñuy wax secret la boo xam ne yàllaan ko dénk nit ki def ci biir nit ki secret boobu mooy baaxam ci mooy bonam mooy kàttanam ci diine mooy ak doyajam ci diine xol boobu ci la mucc di sababoo ci la ñàkk mucc di sababoo xol xol boobu mooy xam yàlla moo koy réere mooy bëgg yàlla moo koy bañ mooy bëgg adduna moo koy bañ daan waxtaan ba àgg ci xëy na bu waxtaan yi sore waaye kon li gàtt moo di yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf koo yónni mu génne ñu ci lëndëm dugal leen ci leer li maa nag xol boobu wax ak ñu ngeen ko mën a fasee bërëbam bërëbu ngëm mooy xol foofu la nekk mooy këram waaye lii maan maanaam ngëm nu nga gën a jaamoo yàlla nu nga gën a toppee diine muy gën a màgg di gën a yokku di gën a leer di gën a fex ba mel ne jant day gën a dëgër di gën a sax day mujj tasaaroo ci cër yi day jóge ci xol bi fees ko ba bëgg tasaaroo ci cër yi mu feeñ mu day mujj feeñ ci kanam xam nit ki boo xoolee kanamam rek xam na ci nit ku baax la mujj mu dugg envoyé xel mi nit ki li muy xalaat yëpp xalaat diine la te ko xalaat ku xam yàlla la te yëgu ko wala yëg na ko mujj mu dem ci li ñuy wax naxt bi weesu xel dem ci naxt bu ko defee nit ki jëfam jëpp ci yiw rek lay jëf ci lu baax rek lay jëf te dëpp ko sañ bañ maanaam du am benn takal du am benn takalluf effort du def benn effort day mujj lool day nekk aw meloom bu ko defee loolu daf koy dal di moom ngëm daf koy moom moom goo xam ne moom bu mat la doon moom bu mat la jaar bi mën na dem ngëm di àttewu ci moom jël ko lépp ba yow bi nga xam ne beneen nit nga beneen jullit nga boo koy xool rek xool bi nga koy xool ak jaamu yàlla la yàlla daf la ci bindul tuyaaba di ci gën a leeral sa xol di la ci yokk ngëm féeg yaa ngi koy xool boo xool nit te nekk ak moom ci bërëb mën na dem ba duñ la bindal bàkkaar féeg yaa ngi nekk ak moom xam ne yàlla ci boppam lu foor ak foor lu am am doole la yàlla tuuteem ni ko ki xam yàlla wax tuuteem moo xam ci jaam tuuteem moo xam ci jaam dañu wax ne yonent yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam bi muy laajee suñu borom ni ko dama la bëgg a gis problème yi indi nañu riwaayaat yu bari ci lan taxoon mu laaj ko ko ñii ne ndax am na ñi nga xam ne dañ ne bu leen bu ma saan prêché nit ñi naan leen jaamu leen yàlla dañ ko daan wax ndax gis nga ko la wax ne yàlla am ndax gis nga ko du leen mën ne gis naa ko mu bëggoon nag maanaam argument lu leen wane ne man gis naa yàlla bi nga xamee ne laaj na ko suñu borom ne ko lan taraani wala ci ñun sunu jëbëri fi istaqarra makaanu fa sawfa taraani wala maa wax nañ ci wax yu bari bari bari ndax gis na ko wala gisu ko gis gii tam ku nekk xam ne ne nit ku ne xam na ne sax ndax ahlu sunna yi ñi nga xam ne ñooy orthodoxe ci l'islam ñoom d'accord nañ ci mu'tazila yi maanaam ñi nga xam ne ay philosophe lañu ci biir l'islam ci biir ulama yi ñoom ñooñu ci d'accord waaye xawaari ji dañ ciy séddali ko ma am maanaam secte yi nga xam ne yu dissidente la daal am na ci ay njaxas la ñii nangu nañ ko ñii nangu nañ ko mais un république d'accord nañ ci te mooy li gën a wér moo di doomu aadama dana gis yàlla fii ci àdduna du ko gisee nag bëtam yi ndax laata ko lépp daal muy def waaye bëtu xol la koy gisee loolu am nañ ci ay preuve yu leer yu bari yoo xam ne ci ulama yi saxal nañ ko awliya yi saxal nañ ko tey alquran ak hadis saxal nañ ko nit ki yoon yàlla Musaa alayhi salaatu wasalaam ulama yi ci wax yu bari yu ne lim gis lim gis mu ngi toll ne bën bën futa ñu ne lim gis mu ngi toll ne kuddu yu ndaw yi ñuy lekk ñu ne lim gis mu ngi toll ne ouverture bakkanu sëllu lu ci mën a am Moussa lam gis mu xam daf koo gis wala daf koo yëg wala daf koo xelmati ni nga xam ne oto bu gaaw boo xam ne gisuloo ko ba mu dal ci sa kaw diggante fi muy dal ci sa kaw ak fi ngay deewee ak ñi nga ko fiy gisee donte gis gi noonu la jàppee Moussa suñu borom la waxal tabaraka wa taala ci waxam di nga xam ne melaw ci mbëb la moom la waxal gis gi ahlu sunnati Moussa gis na tabaraka wa taala waaye Moussa gisu ko ndax gis gi ak xam gi benn la wala Moussa gisul dara dog gee gis dog gi la ñu feeñu moo xam gis na wala gisul ndax dog gi dafa daal di nekk pëndax moom poussière boo xam ne dafa wees ba xaj ci jaww ji lépp pour li ma waxoon ne tuuti yàlla moo xaj ci jaamu buñ demee ba ci comparaison bi xallaaj def ci diggante Moussa alayhi salatu wasalaam ak Mouhamed ci ni wane matak Mouhamed sallallahu taala alayhi wa alihi wa sallam daan ko wax kon nit ki mu xam lan la am ci yàlla barke la bu yàlla wàccee wala ci jifam wala ci meloom diggaale bu mu diggaale moom ba jagleel ko benn jagle boo xam ne bii daf ko koo defal te defalu ko jaam ñëpp wala defalu ko ñu bari loolee day royaat day royaat royaat boo xam ne ci ñi jëfandikoo ñoom moom wala ñu am lu mu diggaale ñëpp mën naa royaat ba teex leen loolu moo waral barkeelu barkeelu lu sax la lu fi nit saxal nañ ko waxoon naa ko tax ci conférence wax la ma koy delluwaat ci diggante yonte alayhi salaatu wasalaam ñi nga xam ne ñoo taxawee xam ne diine gannaaw muy premier ngir yi imaamu Shafi ak imaamu Ahmad ibnu Hanbal Maalik ñoom ñëpp d'accord nañ ci kon wane na ne lu baax dafay nëpp day sotti ko leeru yàlla day sotti ko sallallahu alayhi wa sallam nee na suñu borom am na ay upp yu muy upp moo xam leer bi bëgg la xaw ma di ñëw ci àdduna ni ngeen fexe ba gaar gaarlu leer yooyu wala barke boobu maanaam comme maanaam am na jamono yu barkeel yoo xam ne suñu borom daf cee nangu ñaan daf cee xëccu jaaram jegeel ko bopp wala daf koy dafay leer fóot xolam ba mu mën a dékku leeram ci ay jamono jamono yooyu ni ngeen fexe ba di ko dàq maanaam kon jamono yi léeg-léeg wala njël wala bis yi nga xam ne yu ñu tànn la tey ci lislaam nga di farala taxoon la te tudd yàlla wala ngay jaamu yàlla bi tudd wala loolu ma def ndax loolee daf la yow wala ni mu waxee sallallahu alayhi wa sallam ne suñ borom dana wàcc ba ci sa asamaan si gën a suufee maanaam dafa war a nekk yërmande yàlla day jege si jaam ba nga xam ne ku ko sàkku gaaw koo am ni mu waxee ni suñ borom tabaraka wa taala waxee ci alhadis al qudsi bi yonent bi nag yi sallallahu alayhi wa sallam ne bu sama jaam doxee jëm ci man ma waaxu jëm ci moom bu waaxee jëm ci man ma ñëkk jëm ci moom bu ñëkkee jëm ci man ma daw jëm ci moom day wane rek jaar bi effort bu mu def ngir jëm ci yàlla yàlla gën koo jegeeleel boppam waaye lu lu nit war a wattandiku la nirelee dara yàlla ak day nit xadis yi nga xam ne dikk na ci nirelee yàlla ak nit dañ koy taal ni sallallahu alayhi wa sallam waxee ne yow ma xiyam suñu borom dana fab ay jaam xëpp ca safara safara nooral ko day wàññeeku njëkk a nit ñooñu ak jinne yi nga xam ne ñoo ca nekk di wëndeeku ci jàll bi ku nekk daggit yàpp yooyu nekk ci kadir bu baax safara nekk jëmm ci foqale yàkkamti mbugal ñi doon mooy yàlla di laaj suñu borom ndollam ànd ak foqale boobu suñu borom di tibb di ko sotti mu ne wax woo xam ne dolli na ko mu dellu ñaanaat na ko suñu borom dolli ba doomu aadama yi jeex ba bëgg yi jeex suñu borom ak soo jàll fab tànkam ne ko nii ci safara safara kama ñëw ne der woowu nga sànni ci ci taal ne xat xat ni xat ni doy na doy na doy na doy na bu ñu déggee ci loolu ne suñu borom dafa amee tànk bu mel ni tànk doomu aadama wala bu ne dana wàcc ci asamaan su mujj fii waxtu sàngam ñu dégg ci ne suñu borom day doxoo ci béréb jëm ci béréb ndax espace jàppul yàlla yàlla nekkul fenn bàyyi kenn te béréb mënu koo ëmb ndax ba mu sàkkagul béréb boobu mu ngi amoon te bi ñu ko xàttee xam ne woon la ne nam mele woon la mele nam nekkee woon la nekkee naka noonu jamono itam nun noo mën a nekk ci tey comme ni ma koy faral di waxee démb nu paas bu ëllëg ñëwagul yàlla fépp yemandoo ci moom kon espace ak temps yëpp ay notion yoo xam ne pour doomu aadama yi la waaye du pour yàlla nanu xam sax pour yomal xeyam naka la demee mu ne loolu bi nga xamee ne nit suñ borom may na ko yombalal ko boppam xéer ko ci wut ko mu nat ay cëram ba ngëmam am kàttan ba bëgg ci ay cëram feeñ ci kanamam nat ay cëram sax ci xolam ba saxi reer sax ci xolam ba saxi reer nga xam ne nit ki dana àgg foo xam ne buñ ko rendi woon taal fépp def ko ca mu lakk ba xëm këriñ loolale nga xam ne mooy nit buñ ko dëppoon jëri ko ci ngelaw li ku am basira am gisub xol am déggu benn da nga dégg ni muy sàbbaale suñu borom nga xam ne nit ki iman dugg na ko ba léegi waxtu woo xam ne nii ni ñu waxee ne siraat dañ koy gàcc ci jigéenu jahannama buy jéggi siraat safara woowu daf koy ragal fii ngir yàlla ji mu àndal ndax kattanu ngëm gi banaan ko gaawal yaa ngi sa xar kanam day fay sama leer gi day fay sama safara wi ba kon jaamu yàlla am na misaal yi du jeex waaye jamono bi du ko mën a benn rek ñu jàpp benn xadis boo xam ne sallallahu alayhi wa sallam nee doomu aadama du dañ sama jaam du dañ di ma jaam kii ma farataal ci moom ak yoo xam ne farataal ko ci moom muy wut sama ngërëm rek di ko jëfee di ko def di ko def ba ma sopp ko bu ma ko soppee danaa mujj nekk di lamiñam ba muy waxee di loxoom yi muy jëfe di tànkam yi muy doxee bu waxtu ma ñaanee ma may ko waxtu ma tinoo ma tin ko xam ne nit ki mi ngi naan fanaaw jeex ci yàlla nit koo xam ne kii loxo yàlla ngay jàppee di xëcc loo xëcc mu ñëw nit koo xam ne kii bëti yàlla ngay xoolee loo xool gis ko nit koo xam ne itam nopp yàlla ngay dégg loo déglu dégg ko waaye kon loolu lépp mu xamal ne yàlla bu mu indi nit ci àdduna daf ko sàkkal sart maanaam lii tubaab wax la perfectibilité de la nature humaine doomu aadama yàlla daf ko bindee bind bu kéemaane boo xam ne mën na ci li ñuy wax entraînement dem ba def loo xam ne dañuy defee ne xërëm la wala karaam la wala xam-xam la ak njabar la te fekk na ci tàggatu la tàggatu waaw tàggatu rek di tàggatu di tàggatu ni nga xam ne ci bittiw yaramam noonu la mën a tàggatoo ba jëfe jëf yoo xam ne keneen ki jaaru ci fa mu jaar mënu ko naka noonu biiram itam noonu la mën a tàggatoo ci jàppu ci yàlla ak ci mbiru benn ak xam-xam ba àgg ci koo xam ne dañuy jàpp ne leneen la wala nit ki du doomu adama kese te quran dafa ne fa aqi wajhaka li diine hanifan fitrata llahi lati fatara nasa alayha la tabdila li xalqi llah ñi nga xam ne noonu la fàtte nit ñam rek ku mën a dundal faw mu lekk dafa war a nooy jëm ci jaww ji dafa war a nooy ngelaw si war dafa war a di fàttali naan noonu itam la tax diine ji nga xam ne moo dëppoo melaw bu mu bindee doomu aadama nga xam ne yeneen diine mën koo jëlee kara mën koo rafetlu ci xam nga ne diine diine ji rafetlu na day digg ci ay xor yoo xam ne mu ngi ay ci doomu aadama yi toll ci avancement ci civilisation xam ngeen ne diine yow judaay ko mooy mu ne ci jiitu muy ngi ko ci enfant humanitairement bi doomu aadama tolloo ci ndaw man moom daal ci ñetti état yi enseignement jàng dina yëwa di doomu aadama tolloo am bu humanité tolloo ci ndaw nga am juróom-benn ak di waa jàng xam ne ni ma ko ni ko tàmbalee def ñu ci jógee ba la xam ci développement ak yaay ak kat la ak dundal bu toll ak ay lu bi gën a rëcc gën a indi yeneen xaw la jëm tax daanaka mu war a weer yu élémenté ni ci def ca kaw muy enseignement scolaire social ñëw li mu boole ko nga xam ne léegi c'est que lu am na ci lu lu def lu mel léegi man nay fii nga xaw te lu lu mel xaw ci nga xam ne du dañ daan indi ci ay gëm wala ñu ci dina war a am gërëm wala ñu dugg ci ay daan garab xam ne li ñu daan wax mbënd bu ma daan ñu daan nit ñi ñu daw téere yi amoon sax mag yi ñu gis la woon loo xam ne mën a daw moom wala mbënd bu maanaam daay daay daay di ko mën a yebal mu gis ñu daw ci ko wala ay yaram bari aal yu am doole ñu daan ñu ci ko nga xam ne kon jàngale nga xam ne yore koo jàngale woon na ko fàtte nañ ko wala dañ ko fàtte lépp ci boppam ba tey xool nga xam ne yàlla ko war a yónni laa beneen yoon nga xam ne ko doo xam li ko daan léegi foofu ko foofu foofu ni am suñu borom dana lépp li nga xam ne moo xam keroog fii yàlla tàggee aadama teg ko ci kaw xam ne il faut mu woote aadama ak suuf si mu gën suuf si nag ci aadama ne bala moo xam dafa waane nit yi waane ko dëkk saan nga xalaat xam ñaata nga di am ñi ci war a seen i place li ñu war a lekk li ñu war a naan jàngal li ñu war a toog buñ tolloo dëkk saan la war a tax lépp nga xalaat rek ci baax muy uuf si nga xam ne keroog pour yàlla daal préparer ma bind suuf suuf ki tax ma bind ko mooy ki nga xam ne ak dundam dafa aju ci dunduk suuf nga xam ne ñoom ñaar ñoo mën a ànd ñooy kuufal nga xam ne li muy soxla li suuf di indi moom moo koy soxla moo koy mën a jëfandikoo mooy xam sama xéewal moom la ci mën a jaamu def nit muy loo xam ne lii moo gën a complexe li mu bind lépp xam ne malaaka moo gën a tedd nee ñu masalan amatul malaaykati li ko xam ne noonu la ci ulama yi d'accord rek afdalu min amati naas yi seet ñu maanaam benn benn yi xam nañ ne ñi gën ci nit ñi ñoo gën a foor ñu gën ci malaayka yi waaye nag buñ jàppee rek mboolem nit ñi mboolem malaayka yi leen gën a sell ñoo leen gën ñoo leen gën a jege yàlla waaye malaaka lu simple la testur rek la doomu xaj yi baaxi na itam xel ñu ko prix am na xel xelum kese la waaye amul bànneex amul naqar amul lekk amul naan bàyyi ma di loo xam ne amul xel waaye am na lekk am na naan xam na bànneex xam na coono xam na naqar ak tiis yëpp dana ko yëg nit nag di ko boole yëpp nga xam ne buñ seetee daan ne suñu borom lu mu bind lépp daf koo résumé ci nit nga xam ne bopp bi ak yuuram bi ak milliards cellules yi ci nekk ak ni muy xalaate yëpp nga xam ne dafa taxaw taxawaayu asamaan yi juróom-ñaar nga xam ne karawam bi dafa taxaw taxawaayu ñeex mi ak garab yi nekk ci kaw suuf yëpp yaxam yi nga xam ne dafa taxaw taxawaayu montagne yi maanaam doj yu kawe yi fi nekk nga xam ne buñ seetee jëmmam dafa indi rythme secret Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga xam ne bu ñu nee bopp mooy niim bi dënn bi mooy xaa dem dellu bi njëkkitaay bi di niim bi ñaar tànk yi di dell bi muy koo xam ne suñu borom dafa boole ci moom melaw bàyyi na ak melaw malaaka kon mu mën a dellu gannaaw ba fekk bàyyi na yi bal mu abal bu kabila wala mu mën a jëm kaw ba gën a foor malaayika yi am nañ tegtal yu bari ci loolu kon nit di loo xam ne nii moom la suñu borom toog gi jëf xam ne yomal xiyam nit ak jinne jinne sax moom daañu ko ci boole suñu borom daf ko cee boole waaye comme ni xaddis bi waxee ne ñetti xeet la jinne ñetti xeet la benn xeet bi ñu mel ne ngelaw xëy na moom la yenn nit ñi ñuy wax rab man day dugg ci biir nit ngelaw mën na dugg ci nit beneen xeet bi mooy yent yent suuf yi diggante jiit yi ay jaan ay wund ay yooyu xam ne danañ jaxasoo yi ci def te nit ñi duñ leen xamee nga xam ne kiiraay la suñu borom doxale suñu diggante ak ñoom ñeneen ñi ci def nga xam ne dañoo mel ne nit ñi ñoom ñooy responsable ci seen i jëf yomal xeyam ñoom la ñuy àtte ci seen jëf ñooy dem àjjana ñooy dem safara xam ne ñoom ñoom nit ñi am ñoo tax alquran ni la am la am na jahannama min al jinnati wa nas ajmain nga xam ne ñoo àtte nit la ñu am kon nit waaye nit moo ëpp wala jinne ci plan diine buñ dee seet diine ndax ulama yi nit ñi ñoo ëpp xam-xam ulama yi jinne yi kon nit mën naa buñ ne nit rek buñ ci boole jinne ku ne xam ne ne jinne yi gëm wala xeetu jinne yi nga xam ne ñoo nit a bokk àtte boole nañ leen bu nekkoon nit moom dafa am sax bu rëy ndax mun la occupé juste milieu bi benn mu fekki bàyyi na yi wala mu fekki malaayika yi mën na fekki bàyyi na yi nag ba gën leen a ñàkk solo yées leen comme mën na fekki malaayika yi ba ëpp leen daraja gën leen a jege yàlla kon moom mu bu mu ñëwee ci àdduna mission moom moo gën a rëy loolu moo tax bi alquran ne inna aradna lamanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha al insanu innahu kaana zaluman jahula la ci teg nit nag yéen ci boppam moo ko tooñ ndax lépp lu amul xel xam na yàlla ndax alquran ne wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi nit nag xel mi moom la déerloo ba jàpp ne moom mën naa yenu amaanati diini lépp lu ko yàlla sant mën na ko kon déerloo na kàttan boppam ndax xelam ba lépp lu muy jëf bi ci jiital yàlla bi ci jiital kàttanu yàlla daf koy fàtte ndax xelam xelam rek lay daal di xalaat ne lii bu ma ko bëggee def nii laay daal di mën a mën a def nii def nii def nii ba nga xam ne am na confiance ci loolu loolu moo ko bëgg a xam moo tax lu bari suñu borom di ko xamal bàyyi ne te di ko xamal nit ñi ndax nit xel ci boppam ciiraay la li nga xam ne ne sallallahu alayhi wasallam nee na suñu borom am na juróom-ñaar junniy ciiraay yoo xam ne moo ko yiir buñ ko muri woon képp koo xam ne sa basira gis na ko nga lakk mu ne ciiraay yooyu yii lëndëm la yii leer la yi nga xam yi nga ci xam ne kiiraay buñ ne waaw leer na muy mën a yiwee yàlla xel leer la waaye xel mi dafa lay bëgg dafa bëgg nga doyloo ko nga fab man man jox ko defe ne moom moo xam wala moo man wala ci nga mën a dëgg ba lii loolu lay fàttalee yàlla kon dal dina nekk kiiraay xadis boobu ci boppam mën na nekk conférence bu xam lu bari la buñ ci perdre temps bi ñu waroon wax te mu it bokk ci conférence bi dëgg duñ ko mën a wax waaye loolu lépp pour fi faqi fa aqi wajhaka li diine xanifan fitratallahi lati fatara nas alayha fitratallahi lañu duggoon noonu waaye géej la boo xam ne xóot na xóotaay bopp benn conférence mënu koo jeexal tey taxul ñu toog waaye kon nit bii nga xam ne yàlla def na ko muy ku war a jàll ay maraaxil maanaam ay étapes yu bari yoo xam ne ci sasam la bokk pour muccam daf koo defal itam ay gànnaay yoo xam ne may na ko te may na ko ñeneen ñi bokk na ci takk ko ak dogu dogu dogu bu ñu ko defee dañuy dogu doomu aadama mën na résoudre daanaka problème am yëpp mën na daal teg ci maanaam jafe-jafe yëpp yëpp yi mu dajal yëpp bu fekkente ne nit ki am na jiital na xam-xam xam yoon yi muy jaar mu amuk takk koo xam ne mu di yar boppam mu di àgg ci yàlla mu di wattandiku jéem a mucc ci iblis ndax sukkandikoo yàlla ak yërmandeen ak wut ngërëmam wa tax ñu otlub wala tabda min matlabin fa ahsada qaalim an yaqdara adduna bu ko yàlla sàkkee dama ne sàkk ko mu sotti daf cee waccal nit wàllam ndax nit war a sonn war a sabablu mooy mën a tax ñu mën a tëral ay loi ndax yàlla kon mu sàkk ay aada yoo xam ne moom la jëf leen te nit ñi su ko neexoon nit ki day suur te du lekk nit ki day màndi te du naan nit ki day yër te du saafarloo waaye yooyu yëpp ngir bëgg mu wax sabab yi dox diggante na nit ñi ba ñi nga xam ne am nañu takku ak xam-xamu ak dogu jéggi sabab yooyu àgg te moom du ñu àgg ñi nga xam ne taxawul nañ ci sabab yooyu rek yem ci muy xam-xamu zahir ñi nga xam ne ne boo waree ji aajo woona na suuf si tooy kon ndox li ñuy wax humidité war na ci war na chaleur air itam na li ngay suul na air mën a dugg ba àgg ci moom mu sax boo gëmee ne yooyu rek moo ko taxal nga génnee kàttanu yàlla ak nameelu yàlla mu daal di nekk kufru maanaam kéefër kéefër lay doon waaye nag loolu sabab la yoo xam ne boo xamee ne yàlla daf noo sant lépp lu ñu war a jëfee ñu amuk dogu atuk xam aada ji yàlla jëflante ñun nga xam ne dafa def safara muy lakke te lakke boobu du luy nature nature safara la koo xam ne mun cee dañ bu neexoon yàlla safara du lakke nga xam loolu waaye nag ngay jëfandikoo safara ci jéem a toog wala nga def yooyu yëpp ndax xam ne yàlla moo doxale ni adduna yaa ngi jaar yoon kon dañuy dégg ñu naan yàlla noppi na am na nag aw déggin noppiwul yàlla noppiwul yàlla noppi na mais waaye noppiwul noppiwul ci xaq nit ñi ndax dafa wacc lu bari aj ko ci namneelu doomu aadama ak góorgóorloom ak sabab loom nee ñu yonte yàlla Musa alayhi salatu wasalaam dafa ma sa tawat bi mu feebaree mu tawat suñu borom tawat ji ne ko man damaa tawat mu ne ko dama bërëb sàngam nga xuuf garab ñax sàngam nga lax ko naan ko nga dëbb ko lax ko naan ko Musa bi mu defee loolu alayhi salaam dal di wér mu toog ba jëmmi jamono tawat ji ko dalam dalaat ko mu dal di jubal rek ca ñax ga daal di koy xuuf ñëw jëfandikoo ko jëriñu ko dara mu dellu suñu borom ne ko waaw man dama fee tawatoon nga digal ma garab boo xam ne bi moom moom laa def mu faju léegi garab gi ta ba ma tawat ji dalakee ba ma demee ba ma xuufee jëfandikoo ko jëriñu ma dara mu ne ko waaw léegi da ngaa daal di defee ne garab gi rek moo lay faj bu njëkk da ngaa jaar ci sama ndigal man maa la ko digaloon maa sant garab bi mu saafara la léegi nag yow fi nga toll da ngaa war a weesu sabab yi da ngaa war àgg ci looy jëf nga xam ne lii kat bu ci yàlla dogalee lii ci nam neelam rek waaye bu ko neexoon loolu du am nga jëkk a jaar ci man wala nga jiital ma bu ko defee mu xaj la Moussa daal di ñaan ndigal suñu borom mayati ko ndigal mu dem ca garab ga ñax ga daal di koy xoofa di ñëw saafarlu daal di wér fekkee ba mu yàgg mu daal ne suñu borom tawat ji dalaat ko tawat jama daloon dalat na ma damay bañ la ma daloon dalat ma jubal ca garab ga dem bañ a faju damay jaar ci yow wax la ko loo ma digal ma def mu ne ko demal ca garab ga Moussa dem ca garab ga saafarlu ci dara jëriñu ko dara dikk na suñu borom di yoon yaa ma ko digal itam te ba ma demee itam ba ma ko jëfandikoo faju mu ne ko damaa bëgg nga xam ne sama nam rek a takku sama nam rek moo takku boo ko boo ko boo ko saafarloo te muy sama ndigal itam na na la leer ne yow boo ko jëfee jëfee nga sama ndigal am nga fiyaaba jaamu nga yàlla ndax li ma la sant def nga ko rek waaye wér gi maa ko amee bu ma neexee wéral la bu ma neexee bañ laa wéral Moussa kon yàlla mën nañ ne noppiwul ndax nit ki moom bu ne yàlla noppi ne gëmu ko ci jëfam ndax waxtu wuy dox ci tali bu seenee oto lu mu gëm gëm gëm gëm ne moom kat yàlla sàkkal ne ko jub te mun la dee mukk sa diba jotu te mun la wees diba waaye bu seenee oto bi dana daw li mu gëm li mu gëm gëm gëm ne moom lu ko yàlla bindal ci wërsëg dana dugg ci loxoom bu ko sabab bu ko sabab lu bu tee mu xëy liggéey kon nit ki bu mu def contradiction lan la war a def na xam xam yàlla xam luy sharia xam liñ ko digal topp nañ digal noonu la iman bi mën a wéree noonu la tawakkul wakkilu ci yàlla noonu lay mën a wéree nit ki dafa war a xam xam ne yàlla nag yu bari mun ko aj ci suñu jëf maanaam amatu naa ci la ko la ko mën a demo demotel daal bu ñu xiifee dañu war a lekk pour suuf bu ñu tawatee dañu war a faju ngir ñu wér e bu ñu maree dañu war a naan noonu rek loolu rek lañ digal bu ñu seet ñeneen ñi nga xam ne dem nañ ko wees foofu bi loolu la ñuy def waaye buñ seetle wàll na ànd ak gëm ci seen xol ne buñ demee ba ci alqadar alqada daañ ci gën a yaar xaw ma nag temps bi dana ko matam déet ma asabat min xasanatin fa min allah wa ma asabat min sayiatin fa min nafsika nit xolam ñaari bunt la am nit am na xalaat yoo xam ne ci nafsam la koy dikkee nafs bu ñu ko waxee ci ahlu tasawuf mooy melo yi doomu aadama melo nga xam ne day tax muy xiif war a lekk di mar war a naan di war a sëy di war a nelaw di war a noppalu di bëgg lu koy lor lépp mbooleem melo yooyu la koy nekkal ci biir nit moom lañ koy nafs nafs moomu nag ci luy lor nit ki rek la koy jëlee moo tax ñu ne jeex na ok jërëjëf dégg nit ki kon sharia dañ ko tëral ci aada jooju yàlla jëf leen teeg nit ñi ba tax képp ku ko deful yaa tooñ kon nit ki ma sabat min xasanatin fa min allah xol ci boppam nga xam ne moom lañ laata jëme ci yàlla maanaam moom lañu askane yàlla mooy safaanu bi ñu tudde nafsu kon alqalbu ak nafsu nii ngeen leen di gisee bunt bi ubbi ko jëm ci yàlla moom lañ tuddee alqalbu mooy xol bi jëm ci seytaane mooy melaw nit ki ca melaw ya koy lor ci bëgg lu koy lor moom lañ tuddee nafsu kon mu ne lépp lu la dikkal ci rafet rafet ci baax baax maanaam loo jaamu yàlla ba am ko wala may gum la may wala musal gum la musal fa min allah mu ngi jóge ci yàlla lépp loo xam ne ci bon bon la ci mbugal la ci tiis la ci naqar la ci jàdd yoon la ci bàkkaar la fa min nafsi mu ngi jóge ci li ñu tuddee nafsu loolu ngir xàll yoon wu ñu war a jaar ngir jàngale la jàngale boobu bu ñu koy jàngale Muhammad sallallahu alayhi wa sallam taxul dañoo bëgg mu jàngal nit ñi ndax moom boppam passé nekk sama ba at ne mention très honorable moo di wa innaka la ala xuluqin azim su ko suñu borom xoolee ba ne ko wa innaka la ala xuluqin azim wallahi dëgg dëgg dëgg am nga jikko ju mag maanaam jikko ju mag mooy équilibre bi nga xam ne moo nekk ci diggante qualité yu foor yi ndax buñ seetee ne ragal yàlla ak malaayika buñ ko tegoon ci nit ordinaire mu daal di seey ak xamam yàlla nit àttanu ko ngëmam nit attanu ko coom jaamoom nit attanu ko te moom aw meloom rek mënu koo bañ ñu xam ne kon malaayika diggante moom nit wuute soree lool lañ am xam ne malaayika yi kenn ku ci nekk xeetu malaayika bu nekk ak seen xeetu jaamu yàlla mel na tey bu ñu jàppoon rukoo ñi ngay rukoo jàpp fi woon tëgg nga xam ne yaa ngi ak toroxlu ak damm sa jëmm ji ci kanam màgg yàlla gi ngir di ko jaamu am na malaayika yoo xam ne rukkoo boobu rek ci la ñuy sax ba ba saa di taxaw du ñu sib mukk am yeneen malaayika yoo xam ne seen jaamu yàlla moo di sujjoot rek këpp seen ji suuf du ñu sib mukk ba yomu xiyaam am nañ dañoo taxaw rek du ñu sëgg mukk ba yomu xiyaam ak ñoo xam ne dañoo teen di xool aras rek du ñu rab mukk malaayika yooyu ñu yëpp nga xam ne kenn ku ci nekk ci xeetu jaamu wañ la jagleel nga xam ne yëpp boole nañ ko ci biir julli ji doomu aadama di jëfe yooyu yëpp te kenn ku ci nekk saa su nekk maqaama ya ngay am ci jaamu yàlla googu nit ki attanu ko ci biiru dundam ñoom ñëpp ku ci nekk la nga am li Muhammad sallallahu alayhi wasallam am ca maqaam bañ la jagleel man mu ngi bu ñu ko seetee ni ko li Muhammad am ëppee ak la malaaka ma am mu ngi mel ne ku dem ci géej gi nga tànq ci benn guddi ndox ak géej gi ñu ëppantee teew loolu lépp nga xam ne waliyu bi wala saaba bi wala xutbul xawsi bi buñ ko jàngalee Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ngi mel ne benn pepp suuf ak suuf sëpp teewul dana wali bi wala xut bi mën a ak koo xam ne da nekk ci xaal du xàmmee guddi ak bëccëg du xàmmee safara ak ndox mu sedd du yëgati dara dara dara dara waxtu woo xam ne toll na ci loolu lépp nga xam ne am nañu ci ñoom dañuy ragal yàlla ragal yàlla ragal yàlla ba seen res yi ñor comme ni si naa bu nga xam ne bu mu tàng di wax ak yow res wu ñu wàjj moo lay xeeñ ndax ragal gi mu ragal yàlla yaram bi di tàng biir bi di tàng ba res yi boor yi commencé di ñor ndax ragal yàlla tey ñoom ñëpp loolu ñuy am ci ragal yàlla boobu wala li ñuy am ci njàmbaar boobu wala li ñuy am ci liggéeyal yàlla boobu wala li ñuy am ci jaamu yàlla boobu yëpp li kenn ku ci nekk li nga ci am bu ñu ko seetee ci li Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am muy mel ne tepp ak suuf sëpp maa loolu lépp teewul mu contenir ko mu nekk ci moom mu assimilé ko ba mel ni nit ñi nga xam ne du feeñ ci moom muy nit nga xam ne mooy jiite xare bi di nit nga xam ne mooy jiite julli bi toujours di iliman di nit nga xam ne mooy xaaji ji di atte di nit nga xam ne itam mooy mooy mooy résoudre problème yi julli ñëpp di nit nga xam ne itam ci këram mooy li ca war yëpp moo ko ci def ni borom kër bu nekk di doxale yëpp boole mooy mufti bi nga xam ne mooy yee nit ñëpp di leen jàngal ku jaaxle moom nga ñëw laaj mooy ki nga xam ne mooy recevoir délégation yi jóge ci réew yëpp te loolu lépp teewul mi ngi koy def boole ëpp nit ñëpp fit gën a muñ nit ñëpp loolu lépp mu jëkk ko ci jëmm ji tamit feeñ maanaam équilibre boobu mu am ba nga xam ne benn qualité du war ci kaw benn ba ëpp ko ba bii gën a feeñ wala bii feeñal ak feebal loolu moo tax ñu ne ko wa innaka ala xalqin azimin nga xam ne teewul li muy bari yërmande lu nit bari bari yërmande moo la ëpp yërmande te da nga gis nit bari yërmande ba du atana rendi du rendi dara moom dafa daan rendi non seulement dafay rendi mais day rey nit moo tax mu ne ana nabi yu daxu ko xattal man maa yonent bi nga xam ne damay ree di kaf te damay rey maanaam am ngeen ne ba doon rendi loo xam ne loo attanoo rey loo xam ne yàlla dafa laa sant nga rey ko faiblesse la Muhammad sallallahu alayhi wasallam amul faiblesse ci genn wet moo tax mu ne ana daxukul xattal loolu maanaam maa gën a neex deret ñëpp maa gën a mën a lépp waaye lépp lu yàlla santaane ak tempérament bu nit mën a am pour mën a def loolu rek maa ko ëppale te bu ñëwee danaa ko defee na mu ko defee dara du manqué ci genn wet ngir benn qualité di tax benn qualité manqué wa innaka la ala xulqin azimin
day gis nga dugg ci avec kulli wa alayhi sallam
donc bu ñu waxee kon ci lu jëm ci iman mën nañu iman bu yee ak xas boobu ñu wax muñ bokk na ci jikko yi nga xam ne yaru lislaam jiital na ko gannaaw bu iman wéyee bokk na ci melo yi nga xam ne mooy melo yi yàlla gën a taggee ñi mu gën a fonk mu di yonent yi ñun ci ñun ci tagg ñëpp inna wajadnaahu sabiran ni'mal abdu innahu awwabun satajiduni insha allahu min as-sabirina fasbir kama sabara ulul azmi min rusuli ba mu jeex alquran yépp yonente yi mu tagg tagg leen muñ ndax muñ nee mooy genn wàllu ngëm ndax lépp looy jëf boo amul ak muñ du sotti booy julli léegi signé nga ak yàlla contrat ne wàcc nga adré dootoo xalaat lu ci jëm dootoo xool lu ci jëm léegi muñ la da ngay muñ li nit ñi wax lu mu la intéressé intéressé da ngay muñ lay xew fële da ngay muñ njëriñ la nga xam ne ña ngi koy jël fële te waroon nga caa dem wala boo ca demoon am ca nga mën koo muñ ngir yaa ngi ci biir julli ndax moo ma toog sa bopp ba feeg bu ngay tënnal boo dee woor loon koor muñ rek la xiif ba bëgg a dee gis ndox bu sedd wéet te doo naan xiif ba bëgg a dee mar doo doo naan xiif doo lekk wattandiku loo xam ne nit mën nga ko bañ a xool boo ko tartatee wëlbatiku daal ne astafirullah fëkk yéene bañ ko xoolati wan ko gannaaw wattu sa cër yëpp muy ci yow doo xool lu dagan la salam yi doo ci wax lu dagan sa loxo bi doo ci laal dagan loolu yëpp muñ la kon jaamu yàlla yëpp muñ moo ko ande te buñ seetee ne muñ moo fondé l'islam moo ko taxawal ñi jiitu ci l'islam ñi ko sos amul lu ñu dajul li ñu daj buñ ko dee nekk li sax da ngay defee ne yenn yi dañuy exagéré rawat na ñi nga ci xam ne ñu ñu moom la ñu woon wala ñi nga xam ne seeni maam bu ñu woon ay arab ay ajam lañu leen tudde ñu ñu dund ci réewam arab yi bi lislaam xewee te ñu topp Muhammad te amuñu kenn ku leen protégé nga gis bu leen Suhayb bi Ruumi ku mel ne maanaam Bilaal ñu raba nga gis ku mel ne Ammar ibnu Yaasir ñeen liñ leen doon def nga xam ne Ammar ibnu Yaasir boyal nañu taal jaaxaaral ko ci bës ko ci ba taal bi fay te taal ba dara fayu ko lu dul gareetam xam ne keneen koo xam ne dañ koo dig ci taal bu yenn moom itam ba njëkkaan gi ñor gis ngeen bilaal ni ñu ko daan yóbboo ca gannaaw kër ga teg ko ci bëj yoo xam ne dafa tàng tàng ba sax ñu fa bëj yu di teg ci kawam ak ñi ñu daan nax ñi daan nax ci ndox di leen def lu nekk nga gis ne itam muñ bu dul woon ñoom muñ gi ñu muñ gannaaw yàlla bu lislaam bu suñu borom intervenir ci boppam lislaam dana jafe ak taxawam nga gis muñ boobu ni ñu jaaye woon yàlla seen adduna jaay yàlla seen alal jaay yàlla seen lépp jëndee ko mucc ëllëg nga gis ne waa Badar ñett téeméer ak fukk ak ñett ci nit di affronté lu ma junni nit ak lu topp loolu ñun ak wóor bu ñu wóor ci seen xol moo leen ko mayoon bu nekkoon ngëm bu wee muñ la nit di jëfandikoo ba lislaam am mat nit ko amul muñ sa lislaam du mat nit ko amul muñ doo dee jullit doo jullit ba gën ci jullit ñi bu seetee yarante yi li ñu daj yonte yàlla ibrahima alayhi salaam ba ñu taalee sàmb bu feesal mat ba mu yangi ba yangi ba safara yu jóg nga xam ne njanaaw ndox digganteem ak asamaan daanu ca nga xam ne mënu ñoo jegee taal ba pour bëmax ko ca ñu def ko ci mbaq te tapit bu ñu ko sànnee ba mu xalam ay bay jëm safara si naa jibril dogale ko foofu ne ko ñaanal sa borom ñaanal bopp sa borom mu ne ko suñu borom xam gi mu xam sama mbir doy na ba du ma ko laaj dara lu ma def dañ ne yàlla ma xaritam laa kon xarit li mu def xaritam baax na koo neex bu ma la kay am naa ci ndëpp suñu borom ci baaxam seral safara ba ne Ibrahima nee na dund gi dund ci àdduna yépp jamono ji ci gën a neex mooy jamono jëm def ci biir safara woowale nga xam ne Ayuba alayhi salaam moom itam nit ku bari alal la woon bari wërsëg Iblis dem na suñu borom bi nga xam ne dégg na malaayka yi di sant ayoo ba di wax ngëmum yàlla ak jaamum bu ñetti ak ni mu wàcc lépp mu ne suñu borom man ko di yéemu ma ayoo ba ndax mosaloo ko métti du ñàkk dafa am dafa bari de am alal ba noppi nag di jaamu yàlla ku ne mën na ko man daal bala may nangu ne aadama ku ñu war a tagg la nga mosal ko ñàkk suñu borom daal di may iblis kàttan mu daal di soppali ko safara woo xam ne courant la àndal dem rey jur gépp toj tabax ya daane lépp lépp lu aadama lu ayo ba amoon mu yàq ko jur ko daal di dikk ne topp ku jëmm ne ko waaw yow yow dañu la daal doy na waar yow de yàlla lu mu la def mu gëdd ko ne ko suñu borom ni mu neexee ci sama xol tax na alal bii mu am ak mu ñàkk laa laa yemale lii lépp amu ci dara lu mu yëg mu nekk xëy bañ cee nekk laa yemale man yàlla dina sax te moom laa safoo te xooluma leneen du yàlla sax moo ko fi indi woon moo ma ko joxoon ba lis de waaw ne ba day waar de waaye nag ba tey daf fekk mu ne ci jàmm rek bu tawatoon tawat ju métti daal mu ne ko may naa la kàttan ba tey suñu borom may ko kàttan mu ànd ak microbe yi gën a bon ànd ak jàngoro yi gën a ñaaw daal di koppli ku ngelaw dugg ci yaramam yaram yëpp neewi di toj fut di xel li mbir ba xasaw ba nit ñi mën a ñoo dëkk moom ñu yenu ko jël jël loo xam ne ko ca àll ba mu nekk moom dong di sant suñu borom rek di sant suñu borom ñu gis pexe mu ne mu def ko bu demee rek mu gën a gis ngëmu ayoo ba rek ba noonu bi yàlla boobu nga xam ne mooy iblis am daal di tort am gàcce am naqar ak tiis ngir añaane bu mu añaane woon aadama suñu borom xamal ne aada ayoo ba xamal ne ayoo ba nag gërëm naa la léegi ba ba surtout boobu ba mu sangu ca surtout diba ji hada muhtasalun baridun wa sharabun ila axiri ila axiri bi nga xam ne kon nit yàlla yépp ku la gën a jege yàlla moo la gën a am tiis ci àdduna waaye muñ ci seen muñ ngir li leen defal kamoon yàlla rek moo leen tax àgg foo xam ne ci ndax suñu borom foofu ne inna allah maa sabirin nee na moom mu ngi ànd ak muñkat yi ñii muñ gis nañ sax ci nit yi nga xam ne nit yi àdduna lañ ñoo xam ne jaamkat yàlla lañ waaye liggéey nañu seen bopp ba mel nañu war a mel ci façon yar yu ñu waxoon cultiver seen bopp ba mel nañu war a mel benn poète bu naan tanakkara li dahri walam yadri annani a'izu wa ahdaatu zamani tahunu fa baata yuni lil xatba kayfa atidaa'uhu wa bittu urihi sabra kayfa yakunu sama jamono walbatiku na dittariñiku na sol na deru fekk sol na deru deru tene ak mëkkër ngir duma xëpp ay musiba ak i balaa waaye dafa xamul ne lu yàgg yàgg sama fulla ji ak sama xayri ji ak sama muñ ji ak sama mat ji lu yàgg-yàgg day ñëw rek ba xaw du dañ seen maa ngi dund waaye nag xew-xewi jamono moom fii si jamono musibay jamono lu mu bari bari day jeex rek ak moom lu fi nekk tey day mel nii ëllëg lu mel nii ëllëg lu mel nii dafa war a xam ne man ngelaw lu mel moom du dañ mukk waaye loolu yooyu muy def moom dana dañ mu ne mu dugal na ci guddi musiba guddi tiis boo xam ne guddi guy wéy rek la ba faw mu fanaan ci guddi googu di ma wan nan la musibay kare nan la balaa di mettee ma it ma fanaane koo wan nan la muñ di rafete nan la ngor di mate nan la ab mat di di yére xam ne ko kon wane na ne moom ak lu jamono mën a indil nu mu mën a mel na ko seetlu rek la koy bàyyi ndax mel na na mu war a mel fogar na bopp mu gànnaa yoon na yaru ba melowoo melow nit na nit di mate loolu moo tax sallallahu alayhi wa sallam ne al muminu al qawiyu xayru min al mumini daifu jullit maanaam aji gëm ji dëgër ci kàttanu ji am fulla amut muñ amul mat moo gën jullit bi doyee mu ne yéen jullit ñi ñi gën ci yéen ba ngeen duggagul ci lislaam ba ngeen dee ay yéefar ba tey ñooy gën ci yéen ba ngeen duggagul ci lislaam maanaam ñi gënoon a am fayda ëpp njàmbaar gën a mën a muñ gën a sawar biñ dikkee ci lislaam itam noonu lañ mënee ña gënoon a yàgg ci dinaa amara bu muy tuuf fekk na fanweer ak juróom-ñeent tuuf moom moo leen ñeent fukkeel waaye suñ tuddee Abubakar moom lañ ciy teg muy muy ñaareel lan ko waral melaw lu melaw woon kon lislaam yar bu muy yar nit aw melaw la koy jox woo xam ne melawoo bu ko melawoo li ma waxoon sànq ne moo keneen ni ñuy demee ci valeur mu mel ne wurus yi ñu tëgg takkaay yi gën a rafet ba noppi ca ni mu demee xànjar wala përëm noonu la ñuy wutee kon ñun tey daanaka ma yëpp ci seen i melaw noonu ñu mel ak yar la ca ndax bi nga xam ne ne jullit ñi lislaam moo leen teral moo leen yëkkati teg ci kaw ñëpp ndax sallallahu alayhi wa sallam jóge na fi ba muy am juróom-ñett fukki at jullit ñi seete kaw ci àdduna mooy booba nam leen liggéeye woon ba ñu mat nelawoo bu ba dañu ko ci ñoom gannaaw bi ñu nelawoo dañu ci ñoom ñu def ci zahir bi rek ci kaw ji ci kaw yi tëggal sibbi ak tooyal seeni cër rek booba la ñeneen jóge feneen ëpp leen kàttan ëpp leen dogu ba not leen waaye ba ñu meloo meloo adduna ñoo ko yoroon la ko tàmbalee ca Inde ba ba ngay dem Espagne ak Portugal booba jullit ñi ñoo ko atte woon nga xam ne ñoo jiitu ci science ñoo jiitu ci njàng nga xam ne jullit ñi bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñëw alquran ay fukk nit képp ba réewum arab ñu toll ñoo ci xamul ñoo ci mënoon a liir nga xam ne benn xam-xam amuñu ko jànguñu dara nga gis biñ demee ba ci digg boobu buñ seetee xeet yi gën a bari ay téere yu kaari yi gën a bari ay xam-xam mu di arab yi te arab ñu woyof lañu woon ñu ñàkk ko la ñoo xam ne xamuñu woon ci gànnaay bi ak set wala jaasi wala xeej nga xam ne mënuñu mësuñu woon a am organisation ba mësuñu am boo ci ñoom rek nga gisee xeet boo xam ne amuñu boo ay privé rek lañu am privé bu nekk am kenn ku nekk nga xam ne gannaaw l'islam moo leen yar ba xamal leen discipline ban boole leen benn ñu nekk benn ba féete kaw ñëpp ëpp ñëpp xam-xam ba wëlbatiku ci civilisé réew yi ak di leen not di leen moom di leen jàngal l'islam di leen jàngal yàlla di leen jàngal adduna montre ñoo ko inventé ba nga xamee ne Haruna Rachid njëkk naa yónnee montre Charlemagne ci ci Europe booba France góor lañ ko daan wax bii montre bi ak seen tubaab yi dañoo daw ndax defe ne ak njabar la ci def boo xam ne dafay tëpp seen kaw rey leen pour mu moom seen réew nga xam ne hôpital ñoo ko sos booba européen yi bu ñu feebaree feebar bu ñu la faj dañ koy lakk ak yu dul jeex ñu bari yoo xam ne ñoom ñoo ci jiitoon ñi nga xam ne buñ demee ci science buñ seetee sax chimie tur yu ci bari arab yoo ko indi ñoo ko sos lam ñu arab la mathématique buñ demee nga xam ba ay chiffres yi tubaab yi bind français yeeg anglais yooyu bind chiffre arabe la arabe yoo ko sos gannaaw gi dañuy dem sos chiffre indi yi waaye ñoom ñoo ko def nga xam ne prouvé par neuf ak zéro yooyu yëpp ba tey lenn ci langue yëpp mën nga fekk mooy arabe yi duñ ci jeex français bu ñu ko seetee baati arabe yi duñ jeex nga xam ne ñii ñoo jiitu ci science ñoo jiitu ci nga xam ne kon daf lay xam wane ne que loolu lépp influence kenn nit rek mu di Muhammad alayhi salatu wasalaam loolu tax na ba di américains yi bi ñuy classé maanaam les hommes les plus influents du monde nit ñi gën a ëpp tafsir maanaam ñi gën a jeexital ci nit ci àdduna Muhammad la ñuy def muy numéro un moo jiitu loolu rek xam na ne comme yar bi ñu indi itam noonu la gënee yar yi nga xam ne moom la ñeneen nit la waxoon naa sànq ci bopp bi bi nga xamee ne noonu la seen yar bi ñàkkee efficacité léegi ak ni ñu démissionné ni ñu bàyyee daal wane ne kenn mënal fi wala fi adduna bi daal dégg nga bateau la boo xam ne léegi dem nañ ba mu ngi bëgg a tawee capitaine bi à bord waññi ko na dem moom mu ngay seet na mu sooboo wala corrosé ne loxoom yem ci ñëpp léegi bateau bi ñu ngi ko bàyyi rek ci hasard fu mu fu mu fu mu suuxee ñu xam ne kooku la suuxee fu mu kilee ndax nit ñi di yàgg yàgg lu nit ñi gën a am xam-xam day gën a indil danger adduna bi rek ndax fi mu nekk kon li ma ko faral di di joxe exemple que l'horloge de la télévision bi nga xam ne ne sama atomiste yi moom la ñu inventé nga xam ne pour ne xew-xew yi xew ci armes yi nga xam ne xam-xam koy indi comme li ma waxoon sànq ne li tax ñu naan science sans conscience nekk ñun de l'âme xam-xam bi ni mu gën a bare rek te àndul ak jikko yu rafet day gën a indi nit ñi ay ay ay musiba ay danger ay xatar nga xam ne l'horloge de la télévision dañu dem ba ne waxtu woo xamee ne rek lu war a mën a tukkal adduna fi ngeen ne am na ay armes yu ñuy defar yoo xam ne non seulement savant yi waaye ouvrier simple mën na ci am loo xam ne daf koy tëj ci bali mën nay voyager ak moom dem ba ci réew moo xam ne bu ko neexee mën na déclencher rek réew ñëpp daal di faral nga xam ne loolu bu ci bala boo xam ne tey guerre waxtu mu amee rek adduna mu daal di nay mën a faral ñu daal di nga xam ne diggante 1948 ak léegi loolu horloge boobu muy montre bu mag réglé nañ ko fi ñeenti yoon réglé léeg-léeg ñu avancé ko waxtu woo xam ne musiba xew na moo xam ne mën na sukkal adduna wala inventé nañ loo xam ne musiba la moo xam ne mën na dal sukkal adduna ñu avancé ko ak ci ay minutes yu tolloo na daan ba toll waxtu woo xam ne yeneen convention yu indi lu ko fonk wala ab jubóo ci biir xaj wala yooyu ñu dellu ko retardé ba mu gën a sore ci minutes yi nga xam ne minutes mooy saa taxaw ci ñoom ci ni ñu ko gisee noonu ci misaal nga xam ne kon loolu lépp di ko waral moo di xam-xam bu dem wacc di ko yarate gannaaw maanaam xam-xam bu dem wacc ci yarute gannaaw xam-xam bu dem wacc ci diine gannaaw moo waral nit ñi dem ba àgg ci dans yooyu nga xam ne toujours mu ngi jafe doomu adama comme nga waxoon sànq ne nga xam ne du ñu dem ba mu am benn weer boo xam ne jàmm nga amandoo ci kaw suuf fépp nga xam ne ay amul fenn nga xam ne loolu jomb na te loolu yëpp li ko waral moo di nit ñi yar yar boo xam ne sopp nañ ko ba mu mat sëkk ba nga xam ne mboolem puus yi nation yi xeet yi peuple yi ànd nañ ci àgg nañ ci ci yàlla la nga xam ne moom lañu moom la melaw ñu war a mel nga xam ne moom mooy melaw yi l'islam ak ci nit nga xam ne bu jàppee nit bala ko bàyyi mu àgg ca xam ne fii sunu mag ñi fi nekkoon demoon nañu ba xelu ci loolu waaye yow war na ci itam ci ne boo dee gas yow kenn fukki nit di suul kan ni day mujj nekk bu jël waaye bu kóot nga xam ne ñi ngi daan yar dañ leen daan isolé mooy daara yi ñu daan tàkk waxtu wu ñu yaree ba noppi ci ñooñu ñooñu kenn ci nekk ñoom ñu sàkkal la daara da ngay isolé nit ñi dax ba bari jax solo buñ demee nag ba nga xam ne ñi yaru ñoo gën a bari ñi yaruwul nga xam ne buñ jax solo ñoo leen di yóbbaale waaye ñee duñ leen yóbbaale bu boobaa nga xam ne nag léegi yar daal di mën a continuer dominer waaye ñoom seen liggéey dañ ko tàmbali te agul ndax li ko waral moo di ñëw tubaab yi ci réew mi bu ñu nee yàlla dafa jënd ci nit ñi maanaam jullit ñi seen bakkan ak seen alal jaay leen ko àjjana wala jaay leen ko mucc ëllëg wala jaay leen ko daraja yemal xiyam kon nit li mu jaay moomul ca dara jullit bi kon ne gëm ne moomul dara léppam yàllaa ko moom gannaaw moom nga ko moomoon ci sàkk ko ba noppi xaq jëm ko ci joxoon jiital na ko te jiital na ca yàlla ci kaw bu yàlla soxlaa mu soxla mu jiital soxla si yàlla toog ca teg saaba yi noonu la ñu jaayee woon seen adduna jënd alax seen i toog xiyaat maanaam seen i sacrifice kenn mënu koo lim gis nga adduna bi tali bi mu fanaanee ci kaw la yonante bi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhu pour sàngoo bubbu yonante bi ngir bu ñëwee defee ni Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam ñu rey ko kooku jaayoon na bakkanam si naa bu bakkan bu mu bàyyee alalam ay doomam ndeyam bàyyam yëpp ñu bàyyi leen ci Makka na nga soxla daf te waxtu mu leen jotee rey leen iman rek ko ko jaraloon dafa jaayoon léppam yàlla naka noonu Muhammad moom taxul ñuy wax kon xam ak gisee la nga xam moo amee adduna lépp loo gis ñaar yooyu loo ñoo ko waral ñoom ñaar yooyu ñaar yi nga xam ne ñoo war a couplé pour jur lépp luy jëriñ ci adduna wala luy jëriñ ci àllaaxal jëf boo ko jëfee ci xam sànq la xam itam boo ko jëfewul musiba la moo xam ne day wëlbatiku dal ci sa kaw loolu tax na nit lépp loo xam ne nii day tax ak dundam bu baaxee la l'islam sant ko na waxtandiku loola le mu ni bokk na ci nelaw yu bari bokk na ci toog jotaay yoo xam ne da ngay waxtaan rek lu ñëw ci sa xel nga wax wala waxtaan la adduna rek di wéy fàtte yàlla fàtte yonente bi fàtte ëllëg fàtte jaamu yàlla fàtte tudd yàlla yëpp wéy ci loolu rek ba def ko li gën a bari ci jamono wala muy ko moo xam ne da ngay nekk am na ci habitude boo xam ne foo toll yaa ngi ci ko moomu ba li gën a bari ci jamono ca nga koy sànq day tax dund nit fi du barkeel du fi jëf lu bari bis bu fi jógee bu geesoo gannaawam buñ ko wanee lim fi jëf dana xeeb bopp dana dana rus lool dana torox te dana rëccu itam rëccu boo xam ne bii rëccu mënu ko weete moo tax ñu ne wa qadil roqaada saarifil kasal wa qadil raaxata xasir lamal kon nit li ko diine sam moo di kon muñ sabab lu jaamu yàlla rafetal ay jikkoom xam ne dëkkul fii xam ne fa mu jëm la ko fay jëriñ mooy li mu war a jëfe fii bu ko defee bu demee ba xam ne yoon bii mooy mu war a jaar bu ca jaaree bu sàkkal boppam benn minute ne naa nga jiw mënumaa mel ne moom déedéet xanaa kon loolu mooy tekki rek di fasuloo ñu ne jëf di jiw jëfoon ndax فضلك ولا تنظر من مطلب فآخذ الطالب أن يضجر ما ترى الحبل بتكراره في قرة السماء قد أثرت مثال لما خمنا عربي بيات لنك وهو من ساكو تبوي ساكو بل يوقت مك ndax gàkku sàkku kat mooy yokkat ndax gisuloo boo bëggee yokkat gisuloo boj nga xam ne buum la xànc rek la cëgg lu nooy la ni muy dalee ci kaw bant bi ci pindu teen bi wala simon bi yàgg jaar bi fi yàgg jaar tax mu gas ko ba mu sàkk ay yoon naka noonu la ngay sàkku boo ci saxee rek foo mën a jëm da nga ca àgg nit dafa war a xam ne ni ko yàlla bindee warula tële dara xanaa lu mu àgg wala lu mu mën a waaye bu ko ci yéenee nag na ca àgg wala ba dee fekk ko te bu ko ca dee fekkee te àggul yàlla dana sottal jëfam wa man yaxruj min baytihi muhajiran ila llahi wa rasulihi summa yudrikuhu al mawt faqad waqa ajruhu ala llahi alquran nee na képp koo xam ne génn nga sa néeg ngir wuti yàlla da ngaa jëm ci jihaar ak benn forme jihaar bu mu mën a doon dee fekk la ci yoon wi sak yool bu mat sëkk ne soo àggoon ba jihaar ba jihaar ja jeex lañ la ca waroon fay yàlla dana la ko fay faqat waqa ajruhu ala llahi kon nit ki bu jógee bu mu sàkkal boppam benn limite fu mu warul a àgg fu mu ne du ko àgg dañu wax ne bokk na ci izzatu nafsi nit ki bu mu yéesale boppam dara dañu wax ne bu ñu wax kaafoor ak tafsid yi ak benn moom ñaari jaam lañu woon ñu ngi leen jaayi bi ñu leen dee jaayi Égypte Caire bi ñu demee ba ci yoon bi ñu xiifee trop ñoom ñaar ñëpp ñu ngi mébét ñu ne tey jii guddi la boo xam ne nee ñu mooy leelatul qadar nag ku nekk mébét li mu mébét ñun ñaar te ñaan ko yàlla diis ko suñu borom ndax suñu borom faj suñu soxla boobu waa ji ànd na kaafu daa tax sii ne moom li muy mébét moo di bu demee yàlla nañ ko jaay restaurateur maanaam kuy togg di jaay ndax xiif bi mu xiif bañ koo dalal bi mu mën di lekk fu mu xiifee ki ci def ne ko ah yow yaa ñàkk fayda man nag xam nga man li may li may li may ñaan yàlla man nekk bu mu ne ko ew waaye yaa gàtt xel mbooy mébét da ngay mébét lu mën a am dégg nga ndax xëy na doo ko ñàkk waaye boo xalaatee du mu laam bi ñu demee yàlla daal di fekkete nangu na seen ñaan yooyu waa ji moom ci ko njëkk a waxaale rek restaurateur bi daal koy jënd kay jàll fekk ndeke buur bi am na benn dagam bu mu santoon ne ko nga jëndal ma benn jaam boo xam ne day nekk ci kër gi nekk nekk ñeenteel boy yi ñu jënd kaafoor yóbbu ko fa kaafoor nag yoon nit ku ñuul koo xam ne ku rëy la woon gudd ñaaw gudd waaye xel mi nga xam ne yàlla def na ko ci moom mu jéggi dayoo la woon bi mu nekkee foofu ñi gis toujours xelam ni fu mu teew rek mat sëkk problème bu ñëwit mu gën koo xam ñi ko moom ba buur bi yëfam yu bari mu teg ko ci mo loxoom secret yu bari kaafoor amee ko bi buur bi deewee fekk nga feru ruwaayum doomam mu war a xam doom bi xale bu tuuti la ñu ne nag gannaaw daanaka kaafoor mi moo xawoon a amee nguur gi nañ ko bàyyi noonu mu amee ko na mu ko amee woon ci rek te xale bi moom nekk buur bi bu màggee teeg nguurum boppam la ko neex mu jëfe ko kaafoor itam daal di far jël nguur gi rek nangu ko ci xale ba daa nga def koy usurpé daal daal nekk buur benn bis mu jóg di doxantu mu ngi ci nguur gi di doxantu di doxantu ba fàttali ko moromu moom mu àndaloon dañ koy jaay daal di dikk ci bunt kër benn restaurateur daal di nuyoo noonu mu seen waa ji waa ji seen ko daal di ko xam ne fekk xamoon ne moom kaa ko mujj na nekk boobu mu ñëw nuyu ko bu mu nuyoo moom mu teral ko dégg nga may ko alal defal ko lu nekk bu muy dem nag moom ñi mu àndal ba mu yàgg mu gees mu ne leen fi ngeen nit yàlla moom tëlewul dara kuy ñaan rek ku dul jeexal nañ ko ñaan lépp waaye koy sabablu bul yemale sa bopp fenn yi ngeen waa ji itteem moo detteeloo ak moom man sama itte moo naaw ak moom man ba asamaan maa nga ca kaw weeroon kon nit melo la la ko la ko diine sant melo la woo xam ne bu ko defee ci moom ba mel na mu xam ne noonu la diine bëgg mu mel ko nit la koo xam ne day texeem adduna ak alaxira nit la koy lay doon koo xam ne kii bu ngeen seetee ñi ko fi meloon ñi nga xam ne ba ñu jógee rek dañoo daanoon di jublu yàlla wuti yàlla yàlla waxuma fay gëm leen fay ak wes gëm leen di wes yamal xiyaam waaye takk ndooru fay ga fii ci àdduna wóotale na leen rek ñeneen ñi ci defoon képp koo xam ne kii nitu àdduna nga woon ku doon yëngu jëm ci àdduna moo xam ak ci wet bu mën a doon ba nga dee fàtte nañ la kenn du gis sa doom ba xam ne ci doomu kii la woon wala jeexitam gi ci moom waaye ñi jëmoon ci yàlla ba léegi ma nga def ci seen i kër def ci seen melo def ci ñañ ñañ digaalee def ci ñañ jaxasoo def ci seen i sët ba ci seen i sëtaat ñëwee kon yàlla rek moo jara jox sa bopp yàlla rek moo jara liggéey jëm ci nit lépp lu mu def te jëmee ko ci yàlla perte na ko te dana ko rëccu l'islam nag non réer la réer rek lay xeex yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba mu tàmbalee ba léegi ba du ñu fi jóge mu ngi xeex réer am si ne yi dafay bari trop jamono bi laaj ko naka noonu li ñu wax ouvrage bi côté bàkkaa la di ko wax maanaam toog loxoy kese bañ a def dara noonu la ko l'islam bañe alquran dafa ne waa ay loolu ma sama min quwwati mu'min ribatul xayr turhibuna bihi adu wallahi wa aduwakum jullit ñi dañu war a soxal fuñ toll rek nekk ñu yew ñoo xam ne seen xel mu ngi teew ci ñoom faw jamono bu nekk ñu seet la mu war la mu laaj la fa gën ñu di ko def te kenn gën leen ca bañ di jàmbaar ndax ñoom dañu war a def seen xel la ñoo war a moom adduna ñu war a fekk nit ñëpp kaw ñu war a gën nit ñëpp ci jikko ak ci cawarte ak ci xam-xam ak ci melo wu nekk waxtu wu ñu sàgganee ba keneen fab ko seen alal la koo ko fab waaye ñoom ñoo ko moom ndax ñoom ñoo l'islam mooy diine bi nga xam ne moom moom yooyu yëpp te ñoom dañoo sàggan ba ñu jël ko ci ñoom ci passé ndax bi aay jëli wàcce waaye ñoom su ne koo ñu baax xaalis bi bi adu adu bokum ah julit ñi l'islam mooy diine di nga xam ne bu ñëwee dafa boole ak diinu wa dawla maanaam ngoo ci adduna ak diine ndax diine ji mën a mat ndax nguur gi mën a superviser jullit ñi ba ñu sañ a jëfandikoo lépp loo xam ne diine sant na leen ko ba du am keneen ku bokk seen diine ku leen yiir di leen tere loo xam ne lii diine leen ko sant ba tax na jullit ñëpp dañoo fàggu leen seeni doom fexe ba formé leen def leen ñu di ay soldats di soldats yi diine yoo xam ne waxtu wu diine soxlaa ñu jóg te waxtu wu ñu taxawee taxawal diine day sëkk la ñu taxawal mat ko sëkk te daañu faj soxla te nga xam ne moom la l'islam soxla ba tax ñu jóg. naka doon diine ak ñooñ diine te l'islam tax may wax waruñoo sëgg ci kanamu kenn waruñoo sëgg ci kanam lenn maanaam ci mbiri adduna ci maanaam xeetu jullit fépp foo xam ne am na foo xam ne fii gis nga. ne ñi ngi fay war a fuufeel l'islam wala ñi ngi fay war a koroxal jullit wala ñi ngi fay war a def loo xam ne ni day fuufeel diine bépp jullit bu taxaw loola fardu kifaaya la bépp jullit bu taxaw taxawaayu julli loolu la am nga daraja joo xam ne yawmal qiyaam képp ku deful na nga def dana la ca ñee sallallahu alayhi wa sallam nee na inna qatla aliyin libni abdi wuddin afdalu min ibadati saqalini loolu mooy lan omar ibnu abdi wudd amr ibnu abdi wudd benn yawat la woon boo xam ne dafa amoon kattan ba nga xam ne bu ñu mataan jikki ngaax yi nga xam ne gëréen yi lañ koy sëf di ko tegle moo koy yëkkati bopp teg ci ko gëleen moom di nit koo xam ne dafa xam ne li ñuy wax escrime maanaam xeex xeexee jeeti mu nga xam ne kenn ñemewu ko benn bis ci xaybar ba mu jógee sànni jaatin jooju wëndeel ko aw ko ne eh yéen ñu ne yéen jullit yéen di seen bopp ay jullit nee ngeen nun ku mu rey suñu jaati yi ci yéen koo ko dem àjjana yéen nag ku ngeen rey ci nun koo ko dem safara comme àjjana yi gannaaw gëm ngeen ko ku ma ñemee ci yéen na ñëw rek ma yóbbu ko àjjana léegi wala li ñuy wax ko bi ci yéen yëpp ne pat Ali ibn Abi Talib booba xaleel la yaa bu ak juróom ñeent rabi la amul mu ne yàlla si man maa ngi dem ba xeex ak waa jooju mu ne ko toogal kooku Omar de Omar nag duut naa lim toog Omar nag duut dellu sànni ci jaay ci dellu bàkkooti dam waxati la mu waxoon kenn ñu ngi wala yëngu ak lim bi man dama cay dem te nag dama ne ko naa Amar ibn Abdul Mutin la bu dem ba ca ñetteel ba yonent bi ne ko ah Amar ibn Abdul Mutin la def mu ne ko même bu dee moom itam ba mu demee conférence bi day du xaaj sax yaakaar naa ne xaw ma dina am ay question wala déet temps bi jot na ngeen jéggal ñu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu xam ko taxaw si bu naa ne benn bu kii am na ci yu am solo yoo xam ne itam mu ngi ci kanam maa ngi ko wax waaye daal jamono bi mayu ko te ngeen jéggal ñu kon daal tabarkalla tabarkalla waaw ñu kon nañ jox sëñ bi imam bi mu conclure ñu daal di kii bëggoon nañu wéy lool daal xëy na waaye kon it dana yàgg te du jeex di xaaj alhamdulilahi rabbil alamin
xalaat ñaar xalaat lépp ci xalaat ba mu àgg nga xam ne kon bu ñu waxee ne keroog bis boobu ñi nga xam ne ne bis boobu la aadama bu ñu ñëwee te suñu borom wan malaayika yi ne taxu leen ma bind suuf suuf ki tax ma bind ko mooy ki nga xam ne ak dundam dafa aju ci dunduk suuf nga xam ne ñoom ñaar ñoo mën a ànd ñooy couple nga xam ne li muy soxla li suuf di indi moom moo koy soxla moo koy mën a jëfandikoo mooy xam sama xéewal moom la ciy mën a jaamu def nit muy loo xam ne lii moo gën a complexe li mu bind lépp xam ne malaaka moo gën a tedd nee ñu masalan amatul malaaikati ni ko xam ne noonu la ci ulama yi d'accord rek afdalu min amati naasi seetuñu maanaam benn benn yi xam ne nit ñi gën ci nit ñi ñoo gën a foor ñu gën ci malaayika yi waaye nag buñ jàppee rek mboolem nit ñi mboolem malaayka yi leen gën a sell ñoo leen gën ñoo leen gën a jege yàlla waaye malaaka lu simple la testur rek la doomu aadama bàyyi na itam xel ñu ko prix am na xel xelum kese la waaye amul bànneex amul naqar amul lekk amul naan bàyyi ma di loo xam ne amul xel waaye am na lekk am na naan xam na bànneex xam na coono xam na naqar ak tiis yépp dana ko yëg nit nag di ko boole yëpp nga xam ne buñ seetee daan ne suñu borom lu mu dund lépp daf koo résumé ci nit nga xam ne bopp bi ak yuuram bi ak milliards cellules yi ci nekk ak ni muy xalaat yépp nga xam ne dafa taxaw taxawaayu asamaan yi juróom-ñaar nga xam ne karawam bi dafa taxaw taxawaayu ñeex mi ak garab yi nekk ci kaw suuf yépp yaxam yi nga xam ne dafa taxaw taxawaayu montagne yi maanaam doj yu kawe yi fi nekk nga xam ne buñ seetee jëmmam dafa indi rythme secret Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne buñ ne bopp bi mooy miim bi dënn bi mooy xaadem dellu bi njëkkitaay bi di miim bi ñaar tànk yi di dell bi muy koo xam ne suñu borom dafa boole ci moom melaw bàyyi na ak melaw malaaka kon mu mën a dellu gannaaw ba fekk bàyyi na yi bal mu adallu sabila wala mu mën a jëm kaw ba gën a foor malaayika yi xam nañ tegtal yu bari ci loolu kon nit di loo xam ne lii moom la suñu borom toog gi jëf xam ne yomal xiyam nit ak jinne jinne tax moom daañu ko ci boole suñu borom daf ko cee boole waaye comme ni xaddis bi waxee ne ñetti xeet la jinne ñetti xeet la benn xeet bi ñu mel ne ngelaw xëy na moom la yenn nit ñi ñuy wax rab man day dugg ci biir nit ngelaw mën na dugg ci nit beneen xeet bi mooy yent yent suuf yi diggante jiit yi ay jaan ay wund ay yooyu xam ne dana jaxasoo yi ci def te nit ñi duñ leen xamee nga xam ne kiiraay la suñu borom doxale suñu diggante ak ñoom ñeneen ñi ci def nga xam ne dañoo mel ne nit ñi ñoom ñooy responsable ci seen i jëf yomal xiyam ñoom la ñuy àtte ci seen jëf ñooy dem àjjana ñooy dem safara xam ne ñoom ñoom nit ñi am ñoo tax alquran ne la am la am na jahannama min al jinnati wa nas ajmain nga xam ne ñoo àtte nit la ñu am kon nit waaye nit moo ëpp wala jinne ci plan diine bu ñu dee seet diine ndax ulama yi nit ñi ñoo ëpp xam-xam ulama yi jinne yi kon nit mën naa bu ñu nee nit rek buñ ci boole jinne yi ku ne xam ne ne jinne yi gëm wala xeetu jinne yi nga xam ne ñoo nit a bokk àtte boole nañ leen bu nekkoon nit moom dafa am fas bu rëy ndax mun la occupé juste milieu bi benn mu fekki bàyyi na yi wala mu fekki malaayika yi mën na fekki bàyyi na yi nag ba gën leen a ñàkk solo yées leen comme mën na fekki malaayika yi ba ëpp leen daraja gën leen a jege yàlla kon moom mu bu mu ñëwee ci àdduna mission moom moo gën a rëy loolu moo tax bi alquran ne inna aradna lamanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insanu innahu kana zaluman jahula la ci teg nit nag yéen ci boppam moo ko tooñ ndax lépp lu amul xel xam na yàlla ndax alquran ne wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi nit nag xel mi moom la déerloo ba jàpp ne moom mën naa yenu amaanatu diini lépp lu ko yàlla sant mën na ko kon déerloo na kàttanu boppam ndax xelam ba lépp lu muy jëf bi ci jiital yàlla bi ci jiital kàttanu yàlla daf koy fàtte ndax xelam xelam rek lay daal di xalaat ne lii bu ma ko bëggee def nii laay daal di mën a mën a def nii def nii def nii ba nga xam ne am na confiance ci loolu loolu moo ko bëgg a xam moo tax lu bari suñu borom di ko xamal bàyyi ne te du ko xamal nit ñi ndax nit xel ci boppam kiiraay la li nga xam ne ne sallallahu alayhi wa sallam nee na suñu borom am na juróom-ñaar junni kiiraay yoo xam ne moo ko yiir buñ ko muri woon képp koo xam ne sa basira gis na ko nga lakk mu ne kiiraay yooyu yii lëndëm la yii leer la yi nga xam yi nga ci xam ne kiiraay buñ ne waaw leer na muy mën a yiwee yàlla xel leer la waaye xel mi dafa lay bëgg dafa bëgg nga doyloo ko nga fab man man jox ko defe ni moom moo xam wala moo man wala ci nga mën a dëgg ba lii loolu lay fàttalee yàlla kon dal dina nekk kiiraay xadis boobu ci boppam mën na nekk conférence bu xam lu bari la buñ ci perdre temps bi ñu ngi waroon wax te mu it bokk ci conférence bi dëgg duñ ko mën a wax waaye loolu lépp pour firi faqi fa aqi wajhaka li diina xanifan fitratallahi lati fatara nas alayha fitratallahi lañu duggoon noonu waaye géej la boo xam ne xóot na xóotaay bopp benn conférence mënu koo jeexal te it taxul ñu toog waaye kon nit bi nga xam ne yàlla def na ko muy ku war a jàll ay maraaxil maanaam ay étapes yu bari yoo xam ne ci sasam la bokk pour muccam daf koo defal itam ay gànnaay yoo xam ne may na ko te may na ko ñeneen ñi bokk na ci takku ak dogu dogu dogu bu ñu ko def seet dañuy dogu doomu aadama mën na résoudre daanaka problème am yëpp mën na daal tekki maanaam jafe-jafe yëpp yëpp yi mu dajal yëpp bu fekkente ne nit ki am na jiital na xam-xam xam yoon yi muy jaar mu amuk takku boo xam ne mu di yar boppam mu di àgg ci yàlla mu di wattandiku jéem a mucc ci iblis ndax sukkandikoo yàlla ak yërmandeem ak wut ngërëmam wa tax ñu otuma wala tabda min matlabin fa ahsada faalim an yaqdara adduna du ko yàlla sàkkee dama ne sàkk ko mu sotti daf cee waccal nit wàllam ndax nit war a sonn war a sabablu mooy mën a tax ñu mën a tëral ay loi ndax yàlla kon mu sàkk ay aada yoo xam ne moom la jëf leen te nit ñi su ko neexoon nit ki day suur te du lekk nit ki day màndi te du naan nit ki day wér te du saafarloo waaye yooyu yëpp ngir bëgg mu wax sabab yi dox diggante na nit ñi ba ñi nga xam ne am nañu takku ak xam-xamu ak dogu jéggi sabab yooyu àgg te moom du ñu àgg ñi nga xam ne taxawul nañ ci sabab yooyu rek yem ci muy xam-xamu zahir ñi nga xam ne ne boo waree ji aajo woona na suuf si tooy kon ndox li ñuy wax humidité war na ci war na chaleur air itam na li ngay suul na air mën a dugg ba àgg ci moom mu sax boo gëmee ne yooyu rek moo ko taxal nga génnee sàkkanu yàlla ak nameelu yàlla mu daal di nekk kufru maanaam kéefër kéefër lay doon waaye nag yooyu sabab la yoo xam ne boo xamee ne yàlla daf noo sant lépp lu ñu war a jëfee ñu amuk dogu atuk xam aada ji yàlla jëflante ñun nga xam ne dafa def safara muy lakke te lakke boobu du luy nature nature safara la koo xam ne mun cee dañ bu neexoon yàlla safara bu lakke nga xam loolu waaye nag ngay jëfandikoo safara ci jéem a toog wala nga def yooyu yëpp ndax xam ne yàlla moo doxale ni adduna yaa ngi jaar yoon kon dañuy dégg ñu naan yàlla noppi na am na nag aw déggin noppiwul yàlla noppiwul yàlla noppi na mais waaye noppiwul noppiwul ci xaq nit ñi ndax dafa wacc lu bari aj ko ci nammeelu doomu aadama ak góorgóorloom ak sabab loom nee ñu yonte yàlla Musa alayhi salaatu wasalaam dafa ma sa tawat bu ñu feebaree mu tawat suñu borom tawat ji ne ko man damaa tawat mu ne ko dama bërëb sàngam nga xuuf garab ñeex sàngam nga lax ko naan ko nga dëbb ko lax ko naan ko Musa bi mu defee loolu alayhi salaam dal di wér mu toog ba jëmi jamono tawat ji ko dalam dalaat ko mu dal di juga rek ca ñax ga daal di koy xuuf ñëw jëfandikoo ko jëriñu ko dara mu dellu suñu borom ne ko waaw man dama fee tawatoon nga digal ma garab boo xam ne bi moom moom laa def mu faju léegi garab gi ba ma tawat ji dalakee ba ma demee ba ma xuufee jëfandikoo ko jëriñu ma dara mu ne ko waaw léegi da ngaa daal di defee ne garab gi rek moo lay faj bu njëkk da ngaa jaar ci sama ndigal man maa la ko digaloon maa tam garab bu mu saafara la léegi nag yow fi nga toll da ngaa war a weesu sabab yi da ngaa war àgg ci looy jëf nga xam ne lii kat bu ci yàlla dogalee lii ci nammeelam rek waaye bu ko neexoon loolu du am nga jëkk a jaar ci man wala nga jiital ma bu ko defee mu xaj la Moussa daal di ñaan ndigal suñu borom mayati ko ndigal mu dem ca garab ga ñax ga daal di koy xoofa di ñëw saafarlu daal di wér fekkee ba mu yàgg mu daal ne suñu borom tawat ji dalaat ko tawat jama daloon dalat na ma damay bañ la ma daloon dalat ma jubal ca garab ga dem bañ a faju damay jaar ci yow wax la ko loo ma digal ma def mu ne ko demal ca garab ga Moussa dem ca garab ga saafarlu ci dara jëriñu ko dara ñu dikkee suñu borom di yoon yaa ma ko digal itam te ba ma demee itam ba ma ko jëfandikoo faju mu ne ko dama bëgg nga xam ne sama nammeel rek a takku sama nammeel rek moo takku boo ko boo ko boo ko saafarloo te muy sama ndigal itam na na la leer ne yow boo ko jëfee jëfee nga sama ndigal am nga fiyaaba jaamu nga yàlla ndax li ma la sant def nga ko rek waaye wér gi maa ko amee bu ma neexee wéral la bu ma neexee bañ laa wéral Moussa kon yàlla mën nañ ne noppiwul ndax nit ki moom bu ne yàlla noppi ne gëmu ko ci jëfam ndax waxtu wuy dox ci tali bi bu seenee oto lu mu gëm gëm gëm gëm ne moom kat yàlla sàkkal ne ko jik te mun la dee mukk sa jiba jotul te mun la weesu jiba waaye bu seenee oto bi dana daw li mu gëm li mu gëm gëm gëm ne moom lu ko yàlla bindal ci wërsëg dana dugg ci loxoom bu ko sabab lu bu ko sabab lu bu tee mu xëy liggéey kon nit ki bu mu def contradiction lan la war a def na xam xam yàlla xam muy sharia xam liñ ko digal topp nañ digal noonu la iman bi mën a wéree noonu la tawakkul wakkilu ci yàlla noonu lay mën a wéree nit ki dafa war a xam xam ne yàlla nag yu bari mu ngi ko aj ci suñu jëf maanaam amatu naa ci la ko la ko mu demo demotel daal bu ñu xiifee dañu war a lekk pour suuf bu ñu tawatee dañu war a faju bu ñu wér e bu ñu maree dañu war a naan noonu rek loolu rek lañ digal bu ñu teg ñeneen ñi nga xam ne dem nañ ko wees foofu bi loolu la ñuy def waaye buñ seetlu te wàlla na ànd ak gëm ci seen xol ne buñ demee ba ci alqadar alqada daañ ci gën a yaar xaw ma nag temps bi dana ko matam déet ma asabak min xasanatin fa min allah wa ma asabak min sayiatin fa min nafsika nit xolam ñaari bunt la am nit am na xalaat yoo xam ne ci nafsam la koy dikkee nafs bu ñu ko waxee ci ahlu tasawuf mooy melo yi doomu aadama meloo nga xam ne day tax muy xiif war a lekk di mar war a naan di war a sëy di war a nelaw di war a noppalu di bëgg lu koy lor lépp mbooleem nelaw yooyu la koy nekkal ci biir nit moom lañ koy nax nax su moomu nag ci luy lor nit ki rek la koy jëlee moo tax ñu ne. jeex na ok jërëjëf dégg nit ki kon sharia dañ ko tëral ci aada jooju yàlla jëf leen teeg nit ñi ba tax képp ku ko deful yaa tooñ kon nit ki maa sabat min xasana bi fa min allah xol ci boppam nga xam ne moom lañ laata jëme ci yàlla maanaam moom la ñu askane yàlla mooy safaanu liñ tudde nafsu kon alqalbu ak nafsu nii ngeen leen di gisee bunt bi ubbi ko jëm ci yàlla moom lañ tuddee alqalbu mooy xol bi jëm fii ci seytaane mooy melaw nit ki ca melaw ya koy lor ci bëgg lu koy lor moom lañ tuddee nafsu kon mu ne lépp lu la dikkal ci rafet rafet ci baax baax maanaam loo jaamu yàlla ba am ko wala may gum la may wala musal gum la musal foñu na laay mu ngi jóge ci yàlla lépp loo xam ne ci bonbon la ci mbugal la ci tiis la ci naqar la ci jàdd yoon la ci bàkkaar la fa min nafsu mu ngi jóge ci li ñu tuddee nafsu loolu ngir xàll yoon wu ñu war a jaar ngir jàngale la jàngale boobu bu ñu koy jàngale Muhammad sallallahu alayhi wasallam taxul dañoo bëgg mu jàngal nit ñi ndax moom boppam passé na examen ba at ne mention très honorable moo di wa innaka la ala xuluqin azim su ko suñu borom xoolee ba ne ko wa innaka la ala xuluqin azim wallahi dëgg dëgg dëgg am nga jikko ju mag maanaam jikko ju mag mooy équilibre bi nga xam ne moo nekk ci diggante qualité yu foor yi ndax buñ seetee ne ragal yàlla malaayika buñ ko tegoon ci nit ordinaire mu daal di seey ak xamam yàlla nit attanu ko ngëmam nit attanu ko coom jaamoom nit attanu ko te moom aw meloom rek mënu koo bañ mu xam ne kon malaayika diggante moom nit wuute soree lool lañ am xam ne malaayika yi kenn ku ci nekk xeetu malaayika wu nekk ak seen xeetu jaamu yàlla mel na tey bu ñu jàppoon rukkoo ñi ngay rukkoo jàpp seen woon tëgg nga xam ne yaa ngi ak toroxlu ak damm sa jëmm ji ci kanam màgg bi yàlla gi ngir di ko jaamu am na malaayka yoo xam ne rukkoo boobu rek ci la ñuy sax ba ba saa bi taxaw du ñu sibbi mukk am yeneen malaayka yoo xam ne seen jaamu yàlla moo di sujjoot rek këpp seen ji suuf du ñu sibbi mukk ba yomal xiyaam am ñooñu dañoo taxaw rek du ñu sëgg mukk ba yomal xiyaam ak ñoo xam ne dañu teen di xool aras rek du ñu raf mukk malaayka yooyu ñoo yëpp nga xam ne kenn ku ci nekk ci xeetu jaamu wañ la jagleel nga xam ne yëpp boole nañ ko ci biir julli ji doomu aadama di jëfe yooyu yëpp te kenn ku ci nekk saa su nekk maqaama ya ngay am ci jaamu yàlla boobu nit ki attanu ko ci biiru dundam ñoom ñëpp ku ci nekk la nga am li Muhammad sallallahu alayhi wasallam am ca maqaam bañ la jagleel man mu ngi bu ñu ko seetee ni ko li Muhammad am ëppe ak la malaaka ma am mu ngi mel ne ku dem ci géej gi nga tànq ci benn gudd ndox ak géej gi ni ñuy ëppantee teewul loolu lépp nga xam ne waliyu bi wala saaba bi wala xutbul xawsi bi buñ ko dengalee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom lu mel ne benn pepp suuf ak suuf sëpp teewul dana wali bi wala xut bi mën a ak foo xam ne da nekk ci xaal du xàmmee guddi ak bëccëg du xàmmee safara ak ndox mu sedd du yëgati dara dara dara dara wax woo xam ne toll na ci loolu lépp nga xam ne am nañu ci ñoom dañuy ragal yàlla ragal yàlla ragal yàlla ba seen res yi ñor comme ni si naa bu nga xam ne bu mu tàng di wax ak yow res wu ñu wàjj moo lay xeeñ ndax ragal gi mu ragal yàlla yaram bi di tàng biir bi di tàng ba res yi boor yi commencé di ñor ndax ragal yàlla tey ñoom ñëpp loolu ñuy am ci ragal yàlla boobu wala li ñuy am ci njàmbaar boobu wala li ñuy am ci liggéeyal yàlla boobu wala li ñuy am ci jaamu yàlla boobu yëpp li kenn ku ci nekk li nga ci am buñ ko seetee ci li Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am mu mel ne tepp ak suuf sëpp maa loolu lépp teewul mu contenir ko mu nekk ci moom mu assimilé ko ba mel ne nit ñi nga xam ne bu feeñ ci moom muy nit nga xam ne mooy jiite xare bi di nit nga xam ne mooy jiite julli bi toujours di iliman di nit nga xam ne mooy xaadi ji di atte di nit nga xam ne itam mooy mooy mooy résoudre problème yi julli ñëpp di nit nga xam ne itam ci këram mooy li ca war yëpp moo ko ci def ni borom kër bu nekk di doxale yëpp boolee mooy mufti bi nga xam ne mooy yee nit ñëpp di leen jàngal ku jaaxle moom nga ñëw laaj mooy ki nga xam ne mooy recevoir délégation yi jóge ci réew yëpp te loolu lépp teewul mi ngi koy def boolee ëpp nit ñëpp fit gën a muñ nit ñëpp loolu lépp mu jëpp ci jëmm ji tamit feeñ maanaam équilibre boobu mu am ba nga xam ne benn qualité du war ci kaw benn ba ëpp ko ba bii gën a feeñ wala bii feeñal ak feebal loolu moo tax ñu ne ko wa innaka lala xalqin azim nga xam ne teewul li muy bari yërmande lu nit bari bari yërmande moo la ëpp yërmande te da nga gis nit bari yërmande ba du atame rendi du rendi dara moom dafa daan rendi non seulement dafay rendi mais day rey nit moo tax mu ne ana nabiyu daxu ko xattal man maa yonent bi nga xam ne damay ree di kaf te damay rey maanaam am ngeen ne ba doon ren di loo xam ne loo atanoo rey loo xam ne yàlla dafa laa sant nga rey ko faiblesse la Muhammad sallallahu alayhi wasallam amul faiblesse ci genn wet moo tax mu ne ana daxukul xattal booy maanaam maa gën a neex deret ñëpp maa gën a mën a lépp waaye lépp lu yàlla santaane ak tempérament bu nit mën a am pour mën a def loolu rek maa ko ëppalee te bu ñëwee danaa ko defee na mu ko defee dara du manqué ci genn wet ngir benn qualité du tax benn qualité manqué wa innaka laa xalqin azim donc bi ñu waxee kon ci lu jëm ci iman man nañu iman bu yee ak xasm boobu ñu wax muñ bokk na ci jikko yi nga xam ne yaru lislaam jiital na ko gannaaw bu iman wee bokk na ci melo yi nga xam ne mooy melo yi yàlla gën a taggee ñi mu gën a fonk mu di yonent yi ñun ci ñun ci tagg ñëpp inna wajadnaahu sabiran ni'mal abdu innahu awwabun sa tajiduni insha allahu min as-sabirina fasbir kama sabara ulul azmi min rusuli ba mu jeex alquran yépp yonent yi mu tagg tagg leen muñ ndax muñ nee mooy genn wàllu ngëm ndax lépp looy jëf boo amul ak muñ du sotti boo julli léegi signé nga ak yàlla contrat ne wàcc nga adduna dootoo xalaat li ci jëm dootoo xool li ci jëm léegi muñ la da ngay muñ li nit ñi wax lu mu la intéressé intéressé da ngay muñ lay xew fële da ngay muñ njëriñ la nga xam ne ña ngi koy jël fële te waroon nga caa dem wala boo ca demoon am ca nga mën koo muñ ngir yaa ngi ci biir julli ndax moo ma toog sa bopp ba fekk ko ngay sëlmal boo dee woor noonu koor muñ rek la xiif ba bëgg a dee gis ndox mu sedd wéet te doo naan xiif ba bëgg a dee mar doo doo naan xiif doo lekk wattandiku loo xam ne ni mën loo ko bañ a xool boo ko tarfatee wëlbatiku daal ñu astafurlah fëpp yéene dañ ko xoolati wan ko gannaaw wattu sa cër yëpp muy ci yow doo xool lu dagan la salam yi doo ci wax lu dagan sa loxo bi doo ci laal dagan loolu yëpp muñ la kon jaamu yàlla yëpp muñ moo ko mën def te it buñ seetee ne muñ moo fondé l'islam moo ko taxawal ñi jiitu ci l'islam ñi ko sos amul lu ñu dajul li ñu daj buñ ko dee nekk li sax da ngay defee ne yenn yi dañuy exagéré rawat na ñi nga ci xam ne ñu ñu moom la ñu woon wala ñi nga xam ne seeni maam bu ñu woon ay arab ay ajam lañ leen tudde ñuy ñuy dund ci réewam arab yi bi l'islam xewee te ñu topp Muhammad te amuñu kenn ku leen protégé nga gis bu mel ne Suhayb bi Rumi su mel ne maanaam Bilal ñu raba nga gis ku mel ne Ammar ibn Yasir ñeen liñ leen doon def nga xam ne Ammar ibn Yasir boyal nañu taal jaaxaaral ko ci bës ko ci ba taal bi fay te taal ba dara fayu ko mu dul gareetam xam ne keneen koo xam ne dañ koo dig ci taal bu yañ moom itam ba njëkkaan li ñor ngeen bilaal ni ñu ko daan yóbboo ca gannaaw kër ga teg ko ci bëj yoo xam ne dafa tàng tàng ba sax ñu fa bëj yu di teg ci kawam ak ñi ñu daan naq ñi daan naq ci ndox di leen def lu nekk nga gis ne itam muñ bu dul woon ñoom muñ gi ñu muñ gannaaw yàlla bu l'islam bu suñu borom intervenir ci bopp l'islam dana jafe ak taxawam nga gis muñ ko ni ñu jaaye woon yàlla seen adduna jaay yàlla seen alal jaay yàlla seen lépp jëndee ko mucc ëllëg nga gis ne waa Badar ñett téeméer ak fukk ak ñett ci nit di affronté lu ma julli nit ak li topp loolu ñun ak wóolu bu ñu wóolu ci seen xol moo leen ko mayoon bu ñu nekkoon ngëm bu wéyee muñ la nit di jëfandikoo ba lislaam am mat nit ko amul muñ sa lislaam du mat nit ko amul muñ doo dee jullit it doo jullit ba gën ci jullit ñi bu seetee yonent yi li ñu daj yonent yàlla Ibrahima alayhi salaam ba ñu taalee sàmb bu feesal mat ba mu yàngi ba yàngi ba safara yu jóg nga xam ne ñanaaw lu dox digganteem ak asamaan daanu jël nga xam ne mun ñoo jege taal ba pour bëmax ko ci ñu def ko ci mbaq te tapit buñ ko sànnee ba mu xalam ay bay jëm safara ci naa jibril dogale ko foofu ne ko ñaan sama ñaan bokk sa borom mu ne ko suñu borom xam gi mu xam sama mbir doy na ba du ma ko laaj dara lu ma def dañ ne yàlla ma xaritam laa kon xarit bu mu def xaritam war na ko neex bu ma la koy am naa ci ndëpp suñu borom ci baaxam seral safara ba ne ibrahima nee na dund gi dund ci àdduna yépp jamono ji ci gën a neex mooy jamono jëm def ci biir safara woowale nga xam ne ayuba alayhi salaam moom itam nit ku bari alal la woon bari wërsëg iblis dem na suñu borom bi nga xam ne dégg na malaayka yi di sant ayuba di wax ngëmum yàlla ak jaamu bu ñetti ak ni mu wàcc lépp mu ne suñu borom man kat yéemu ma ayuba ndax mosaloo ko nekk du ñàkk dafa am dafa bari de am alal ba noppi nag di jaamu yàlla ku ne mën na ko man daal bala may nangu ne aadama ku ñu war a tagg la nga mosal ko ñàkk su ngoom daal ni may ko gis kàttan mu daal di soppaliku safara wax ne courant la àndal dem rey jur jëpp toj tabax ya daane lépp lépp lu aadama lu ay ba amoon mu yàq ko ko daal di dikk rek sopp ku jëmm ne ko waaw yow yow dañu la dal doy na waar yow de yàlla lu la def mu gëdd ko ne ko suñu borom ni mu neexee ci sama xol tax na alal bi mu am ak mu ñàkk laa laa yemale lii lépp amu ci dara lu mu yëg mu nekk te mu bañ te nekk laa yemale man yàlla li nga saf te moom laa safoo te xooluma leneen du yàlla sax moo ko fi indi woon moo ma ko joxoon ba gis gën waaw
ne ah day waar waaye nag ba tey def fekk mu ne ci jàmm rek bu tawatoon tawat ju métti daal mu ne ko may naa la kàttan ba tey suñu borom may ko kàttan mu ànd ak microbe yi gën a bon ànd ak jàngoro yi gën a ñaaw daal di toppaliku ngelaw dugg ci yaramam yaram yëpp newi di toj fut di xel li mbir ba xasaw ba nit ñi mën a ñoo dëkk moom ñu yenu ko jël jël loo sànni ko ca àll ba mu nekk moom dong di sant suñu borom rek di sant suñu borom ñu gis fexe mu ne mu def ko bu demee rek mu gën a gis ngëmu ayoo ba rek ba noonu yàlla boobu nga xam ne mooy iblis am daal di kor am gàcce am naqar ak tiis ngir añaan bu mu añaane woon aadama suñu borom xamal ne aada ayoo ba xamal ne ayoo ba nag gërëm naa la léegi ba ba kursi boobu ba mu sangu ca urku jiba jika hada muxtasalun baridun wa sharabun ila axiri ila axiri bi nga xam ne kon nit yàlla yépp ku la gën a jege yàlla moo la gën a am tiis ci àdduna waaye muñ ci seen muñ ngir li leen defal sama yàlla rek moo leen tax àgg foo xam ne ci ndax suñu borom foofu ne inna allah maa sabirin nee na moom mu ngi ànd ak muñkat yi ñii muñ gis nañ sax ci nit yi nga xam ne nit yi àdduna lañ ñoo xam ne jaamkat yàlla lañ waaye liggéey nañu seen bopp ba mel nañu war a mel ci façon yar li ñu waxoon cultiver seen bopp ba mel nañu war a mel benn poète bu naan tanakkara li dahri walam yadri annani a'izu wa ahdaatu zamani tahunu fa baata yuridi alxaqba kayfa atidaa'uhu wa bittu urihi sabra kayfa yakunu sama jamono walbatiku na bittarñiku na sol na deru fekk sol na deru deru tene ak mëkkër ngir duma xëpp ay musiba ak i balaa waaye dafa xamul ne lu yàgg-yàgg sama fulla ji ak sama xayri ji ak sama muñ ji ak sama mat ji lu yàgg-yàgg day ñëw rek ba xaw du dañ ci maa ngi dund waaye nag xew-xewi jamono moom fii si jamono musibay jamono lu mu bari bari day jeex rek ak moom lu fi nekk tey day mel nii ëllëg lu mel nii ëllëg lu mel nii dafa war a xam nag man ngelaw lu mel moom du dañ mukk waaye loolu yooyu muy def moom dana dañ mu ne mu dugal ma ci guddi musiba guddi tiis boo xam ne guddi buy wéy rek la ba faw mu fanaan ci guddi googu di ma wan nan la musibay tare nan la balaa di mettee ma ne ma fanaane koo wan nan la muñ di rafete nan la ngor di mate nan la ab mat di di yére xam ne ko kon wane na ne moom ak lu jamono mën a indil nu mu mën a mel na ko seetlu rek la koy bàyyi ndax mel na na mu war a mel fogar na bopp mu gànnaa yoon na yaru ba melowoo melaw nit na nit di mate loolu moo tax sallallahu taala alayhi wa sallam ne al mumin al qawiyu xayrun min al mumin al daifi jullit maanaam aji gëm ji dëgër ci kattanu ji am fulla amuk muñ amul mat moo gën jullit bi doyee mu ne yéen jullit ñi ñi gën ci yéen ba ngeen duggagul ci lislaam ba ngeen dee ay yéefar ba tey ñooy gën ci yéen bi ngeen duggee ci lislaam maanaam ñi gënoon a am fayda ëpp njàmbaar gën a mën a muñ gën a sawar biñ dikkee ci lislaam itam noonu lañ mëne ñi gënoon a yaatu Ibna Omar bu muy tuuf fekk na fanweer ak juróom-ñeent tuuf moom moo leen ñeent fukkeel waaye suñ tuddee Abubakar moom lañ ciy teg muy muy ñaareel lan ko waral melaw lu melawoon kon lislaam yar bu muy yar nit aw melo la koy jox woo xam ne meloo bu ko meloo li ma waxoon sànq ne moo keneen ni ñuy demee ci valeur mu mel ne wurus yi ñu tëgg takkaayu da gën a rafet ba noppi ja ni mu demee ak xànjar wala përëm noonu la ñuy wuutee kon ñun tey daa ñu mën yëpp ci seen i melo noonu ñu mel ak wet la ca ndax bi nga xam ne ne jullit ñi l'islam moo leen teral moo leen yëkkati teg ci kaw ñëpp ndax sallallahu alayhi wa sallam jóge na fi ba mu ñuy am juróom-ñett fukki at jullit ñi seete kaw ci àdduna mooy booba nam leen liggéeye woon ba ñu mat melowoo bu ba dañu ko ci ñoom gannaaw bi ñu melowoo dañee ci ñoom ñu def zahir bi rek ci kaw gi ci kaw yi tëgg ak siggi ak tooyal seeni cër rek booba la ñeneen jóge feneen ëpp leen kàttan ëpp leen dogu ba not leen waaye ba ñu melowoo melowoo àdduna ñoo ko yoroon la ko tàmbalee ca Inde ba ba ngay dem Espagne ak Portugal booba jullit ñi ñoo ko atte woon xam ne ñoo jiitu ci science ñoo jiitu ci njàng nga xam ne jullit ñi bi Muhammad sallallahu alayhi wasallam di ñëw alquran ay fukk nit képp ba réewum arab ñu toll ñoo ci xamul ñoo ci mënoon a liir nga xam ne benn xam-xam amuñu ko jànguñu dara nga gis biñ demee ba ci digg boobu buñ seetee xeet yi gën a bari ay téere yu taalib yi gën a bari ay xam-xam mu di arab yi te arab ñu woyof lañu woon ñu ñàkk ko la ñoo xam ne xamuñu woon ci gànnaay di ak set wala jaasi wala xeej nga xam ne mënuñu mësuñu woon a am organisation ba mësuñu am boo ci ñoom rek nga gisee xeet wax ne amuñu boo ay privé rek lañuy am privé bu nekk am kenn ku nekk nga xam ne gannaaw l'islam moo leen yar ba xamal leen discipline ban boole leen benn ñu nekk benn ba féete kaw ñëpp ëpp ñëpp xam-xam ba wëlbatiku ci civilisé réew yi ak di leen not di leen moom di leen jàngal l'islam di leen jàngal yàlla di leen jàngal adduna montar ñoo ko éwante ba nga xamee ne Haruna Rachid njëkk naa yónnee montar Charlemagne ci ci Europe booba France góor lañ ko daan wax bii montre bi ak seet tubaab yi dañoo daw ndax defe ne ak njabar la ci def boo xam ne dafay tépp seen kaw rey leen pour mu moom seen réew nga xam ne hôpital ñoo ko sos booba européens yi bu ñu feebaree feebar bu ñu la faj dañ koy lakk ak yu dul jeex yu bari yoo xam ne ñoom ñoo ci jiitu woon ñi nga xam ne bu ñu demee ci science bu ñu seetee sax chimie tur yu ci bari arab yoo ko indi ñoo ko sos la ñu arab la mathématique bu ñu demee nga xam ba tey chiffres yi tubaab yi bind français yeeg anglais yi bind chiffre arabe la arabe yoo ko sos gannaaw gi la ñuy dem sos chiffre indi yi waaye ñoom ñoo ko def nga xam ne prouvé par neuf ak zéro yooyu yëpp ba tey lenn ci langue yëpp mën nga fekk mooy arabe yi duñ ci jeex français bu ñu ko seetee baati arabe yi duñ jeex nga xam ne ñii ñoo jiitu ci science ñoo jiitu ci nga xam ne kon dafa lay xam wane ne que loolu lépp influence kenn nit rek mu di Muhammad alayhi salaatu wasalaam loolu tax na ba bi américains yi bi ñuy classé maanaam les hommes les plus influents du monde nit ñi gën a ëpp tafsir maanaam ñi gën a jeexital ci nit ci àdduna Muhammad la ñuy def muy numéro un moo jiitu ah loolu rek xam na ne kon yar bi mu indi itam noonu la gënee yar yi nga xam ne moom la ñeneen nit lay waxoon naa kan ci bopp bi bi nga xamee ne noonu la seen yar bi ñàkkee efficacité léegi ak ni ñu démissionné ni ñu bàyyee daal wane ne kenn mënal fi wala bi adduna bi daal dégg nga bako la boo xam ne léegi dem nañ ba mu ngi bëgg a sawire capitaine bi à bord waññi ko na dem moom mu ngay seet na mu sooboo wala corrosé ne loxoom yem ci ñëpp léegi bato bi ñu ngi ko bàyyi rek ci hasard fu mu fu mu fu mu suuxee ñu xam ne foofu la suuxee fu mu kilee ndax nit ñi di yàgg yàgg lu nit ñi gën a am xam-xam day gën a indil danger adduna bi rek ndax fi mu nekk comme ni ma ko faral di di joxe exemple que l'horloge de la fin du temps bi nga xam ne ne savant atomiste yi moom la ñu inventé nga xam ne pour ne xew-xew yi xew ci armes yi nga xam ne xam-xam koy indi comme ni ma waxoon sànq ne li tax ñu naan science sans conscience nekk nii de l'âme xam-xam bi ni mu gën a bare rek te àndul ak jikko yu rafet day gën a indi nit ñi ay ay ay musiba ay danger ay xatar nga xam ne l'horloge de la fin du temps dañu dem ba ne waxtu woo xamee ne rek lu war a mën a tukkal adduna ngeen ne am na ay armes yuy defar yoo xam ne non seulement savant yi waaye ouvrier simple mën na ci am loo xam daf koy tëj ci bali mën nay voyager ak moom dem ba ci réew moo xam ne bu ko neexee mën na déclencher rek réew ñëpp daal di faral nga xam ne loolu mu ci bala moo xam ne tey guerre waxtu mu amee rek adduna mu daal dinay mën a faral ñu daal di nga xam ne diggante 1948 ak léegi loolu horloge boobu muy montre mag réglé nañ ko fi ñeenti yoon réglé léeg-léeg ñu avancé ko waxtu woo xam ne ne musiba xew na moo xam ne mën na dugal adduna wala inventé nañ loo xam ne musiba la moo xam ne mën na dal dugal adduna ñu avancé ko ay ci ay minutes yu tolloo na daan ko ba toll waxtu woo xam ne ne yeneen convention yu indi lu ko fonk wala ab jubóo ci biir xaj wala yooyu ñu dellu ko retardé ba mu gën a sore ci minutes yi nga xam ne minutes mooy saa taxaw ci ñoom ci ni ñu ko gisee noonu ci misaal nga xam ne kon loolu lépp di ko waral moo di xam-xam bu dem wacc di ko yarate gannaaw man xam-xam bu dem wacc yarate gannaaw xam-xam bu dem wacc diine gannaaw moo waral nit ñi dem ba àgg ci dans yooyu nga xam ne toujours mu ngi jafe doomu adama comme ni nga waxoon sànq ne nga xam ne du ñu dem ba mu am benn weer boo xam ne jàmm nga amandoo ci kaw suuf fépp nga xam ne ay amul fenn nga xam ne loolu jomb na te loolu yëpp li ko waral moo di nit ñi yar yar boo xam ne sox nañ ko ba mu mat sëkk ba nga xam ne mboolem couche yi nation yi xeet yi peuple yi ànd nañ ci àgg nañ ci ci gerte la nga xam ne moom lañu moom la melaw ñu war a mel nga xam ne moom mooy melaw yi lislaam ak ci nit nga xam ne bu jàppee nit bala ko bàyyi mu àgg ca xam ne fii sunu mag ñi fi nekkoon demoon nañu ba xelu ci loolu waaye yow woon na ci itam ci ne boo dee gas yow kenn fukki nit di suul kan ni day mujj nekk jël waaye bu xóot nga xam ne ñi ngi daan yar dañ leen daan isolé mooy daara yi ñu daan sàkk waxtu wu ñu yaree ba noppi ci ñooñu ñooñu kenn ci nag ñoom ñu sàkkal la daara da ngay isolé nit ñi daa bari jaxasoo buñ demee nag ba nga xam ne ñi yaru ñu gën a bari ñi yaruwul nga xam ne buñ jaxasoo ñoom ñoo leen di yóbbaale waaye ñee duñ leen yóbbaale bu boobaa nga xam ne nag léegi yar daal di mën a continuer dominer waaye ñoom seen liggéey dañ ko tàmbali te agul ndax li ko waral moo di ñëw tubaab yi ci réew mi bu ñu nee yàlla dafa jënd ci nit ñi maanaam jullit ñi seen bakkan ak seen alal jaay leen ko àjjana wala jaay leen ko mucc ëllëg wala jaay leen ko daraja yama xeer kon nit li mu jaay moomul ca dara jullit bi kon ne gëm ne moomul dara léppam yàllaa ko moom gannaaw moom nga ko moomoon ci sàkk ko ba noppi xaq dama ci joxoon jiital na ko ca jiital na ca yàlla ci kaw bu yàlla soxlaa mu soxla mu jiital soxla si yàlla toog ca teg saaba yi noonu la ñu jaayee woon seen adduna jënd àlla seen i toxeyaat maanaam seen i sacrifice kenn mënu koo lim gis nga adduna bi tari bu ñu fanaanee ci kaw la yonante bi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhu pour sàngoo bubbu yonante bi ngir bu ñu ñëwee defee ne Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam ñu rey ko kooku jaayoon na bakkanam si naa bu bakkan bu mu bàyyee alalam ay doomam ndeyam bàyyam yëpp ñu bàyyi leen ci màkka na nga soxla daf te waxtu bu ñu jotee rey leen iman rek ko jaraloon dafa jaayoon léppam yàlla naka noonu Muhammad moom taxu ñuy wax kon xam ak gisee la nga xam moo amee adduna lépp loo gis ñaar yooyu la ñoo ko waral ñoom ñaar yooyu ñaar ñi nga xam ne ñoo war a couplé pour jur lépp luy jëriñ ci adduna wala luy jëriñ ci àllaxal jëf boo ko jëfee ci xam sànq la xam tam boo ko jëfewul musiba la moo xam ne day wëlbatiku dal ci sa kaw loolu tax na nit lépp loo xam ne nii day tax ak dundam bu baaxee la l'islam sant ko nawatandi ko loola la mu ni bokk na ci nelaw yu bari bokk na ci toog jotaay yoo xam ne da ngay waxtaan rek lu ñëw sa xel nga wax wala waxtaan adduna rek di wéy fàtte yàlla fàtte yonent bi fàtte ëllëg fàtte jaamu yàlla fàtte tudd yàlla yëpp wéy ci loolu rek ba def ko li gën a bari ci jamono wala muy ko moo xam ne ngay nekk am na ci habitude boo xam ne foo toll yaa ngi ci ko moomu ba li gën a bari ci jamono ca nga koy tànn day tax dund nit fi du barkeel du fi def lu bari bis bu fi jógee bu geesoo gannaawam bu ñu ko wanee lim fi jëf dana xeeb bopp dana tëlëm lool dana torox te dana rëccu itam rëccu boo xam ne bii rëccu mënu ko weete moo tax ñu ne wa qalbi roqaada saarifil kasal wa qalbi raaxata xabsir lamal kon nit li ko diine sam moo di kon muñ sabab lu jaamu yàlla rafetal ay jikkoom xam ne dëkkul fii xam ne fa mu jëm la ko fay jëriñ mooy li mu war a jëfe fii bu ko defee bu demee ba xam ne yoon bii mooy li mu war a jaar bu ca jaaree bu sàkkal boppam benn minute ne na nga jiw mënumaa mel ne moom déedéet xanaa kon loolu mooy tekki rek di fëkk lu ne jëf di jiw jëfoon ndax فضلك ولا تنظر من مطلب فآخذ الطالب أن يضجر ما ترى الحبل بتكراره خرج السماء قد أخرى مثال لما خمنا أراضي بيات لنك وهو نغا ساكو تبوي ساكو دول يوقت نك ndax gàkku sàkku kat mooy yokkat ndax gisuloo boo bëggee yokkat gisuloo boj nga xam ne buum la xañ ci rek la cëgg lu nooy la ni muy dale ci kaw bant bi ci tundu teen bi wala simon bi yàgg jaar bi fi yàgg jaar tax mu gas ko ba mu sàkk ay yoon naka noonu la ngay sàkku boo ci saxee rek foo mën a jëm da nga ca àgg nit dafa war a xam ne ni ko yàlla bindee warula tëlee dara xanaa lu mu àgg wala lu mu mën a waaye bu fasee yéene nag na ca àgg wala ba dee fekk ko def bu ko sa dee fekkee sa àggul yàlla dana sottal jëfam wa man yaxruj min baytihi muhajiran ila llahi wa rasulihi summa yudrikuhu al mawt faqad waqa ajruhu ala llahi alquran nee na képp koo xam ne génn nga sa néeg ngir wuti yàlla da ngaa jëm ci jihaar ak benn forme jihaar bu mën a doon dee fekk la ci yoon bi sak yool bu ma sëkk ne soo àggoon ba jihaar ba jihaar ja jeex lañ la ci waroon fay yàlla dana la ko fay faqat waqa ajruhu ala allah kon nit ki bu jógee bu mu sàkkal boppam benn limite fu mu warul a àgg fu mu ne du ko àgg dañu wax ne bokk na ci izzatu nafsi nit ki bu mu yéesale boppam dara dañu wax ne bu ñu wax kaafoor ak tafsid yi ak beneen moom ñaari jaam lañu woon ñu ngi leen jaayee bi ñu leen dee jaay Égypte Caire bi ñu demee ba ci yoon bi ñu xiifee trop ñoom ñaar ñëpp ñu ngi mébét ñu ne tey jii guddi la boo xam ne nee ñu mooy laylatul qadar nag ku nekk mébét li mu mébét ñun ñaar te ñaan ko yàlla diis ko suñu borom ndax suñu borom faj suñu soxla boobu waa ji ànd na kaafuur ak si bi ne moom li muy nëbët moo di bu demee yàlla nañ ko jaay restaurateur maanaam kuy togg di jaay ndax xiif bi mu xiif bañ koo dalati mu mën di lekk fu mu xiifee ki ci def ne ko ah yow yaa ñàkk fayda man nag xam nga man li may li may li may ñaan yàlla man nekk bu mu ne ko ew waay yaa gàtt xel mbooy mébét da ngay mébét lu mën a am léegi ndax xëy na doo ko ñàkk waaye boo xalaatee du mu laam bi ñu demee yàlla daal di fekkete nangu na seen ñaan yooyu waa ji moom ki ko njëkk a waxaale rek restaurateur daal koy jënd kay jàll fekk ndeke buur bi am na benn dagam bu mu santoon ne ko nga jëndal ma benn jaam boo xam ne day nekk ci kër gi nekk nekk ñeenteel boy yi ñu jënd kaafoor yóbbu ko fa kaafoor nag yoon nit ku ñuul koo xam ne ku rëy la woon gudd ñaaw gudd waaye xel mi nga xam ne yàlla def na ko ci moom mu jéggi dayoo woon bi mu nekkee foofu ñuy gis toujours xelam ni fu mu teew rek mat sëkk problème bu ñëwit mu gën koo xam ñi ko moom ba buur bi yëfam yu bari mu teg ko ci mo loxoom secret yu bari kaafoor amee ko bi buur bi deewee fekk nga feru waayum doomam mu war a xam doom bi xale bu tuuti la ñu ne nag gannaaw daanaka kaafoor mi moo xawoon a amee nguur gi nañ ko bàyyi noonu mu amee ko na mu ko amee woon ci rek te xale bi moom nekk buur bi bu màggee seet mbirum boppam la ko neex mu jëfe ko kaafoor itam daal di far jël nguur gi rek nangu ko ci xale ba daa nga dem kay usurpé daal daal nekk buur benn bis mu jóg di doxantu mu ngi ci nguur gi di doxantu di doxantu ba fàttali ko moromu moom mu àndaloon dañ koy jaay daal di dikk ci bunt kër benn restaurateur daal di nuyoo noonu mu seen waa ji waa ji seen ko daal di koy xam ne teg xamoon ne moom kaa ko mujj na nekk boobu mu ñëw nuyu ko bu mu nuyoo moom mu teral ko dégg nga may ko alal defal ko lu nekk bu muy dem nag moom ñi mu àndal ba mu yàgg mu gees mu ne leen gis ngeen nit yàlla moom tëlewul dara kuy ñaan rek pour jeexal na nga ko ñaan lépp waaye booy sabablu bul yemale sa bopp fenn yi ngeen waa ji itteem moo detteeloon moom man sama ittee moo naawoon moom man ba asamaan maa nga ca ko weeroon kon nit melo la la ko la ko diine sant melo la woo xam ne bu ko defee ci moom ba mel na mu xam ne noonu la diine ba mu mel ko nit la koo xam ne day texeem adduna ak alaxira nit la koy lay doon koo xam ne kii bu ngeen seetee ñi ko fi meloon ñi nga xam ne ba ñu jógee rek dañoo daaloon di jublu yàlla wuti yàlla yàlla waxuma fay gëm leen fay ak wes gëm leen di wes yamal xiyaam waaye takk ndoo fay ga fii ci àdduna wóotale na leen rek ñeneen ñi ci defoon képp koo xam ne kii nitu àdduna nga woon ku doon jëngu jëm ci àdduna moo xam ak ci wet bu mën a doon ba nga dee fàtte nañ la kenn du gis sa doom ba xam ne kii doomu kii la woon wala jeexi tamit ci moom waaye ñi jëmoon ci yàlla ba léegi ma nga def ci seen i kër def ci seen i melo def ci ñañ ñañ digaalee def ci ñañ jaxasoo def ci seen i sët ba ci seen i sëtaat ñu yooyu kon yàlla rek moo jara jox sa bopp yàlla rek moo jara liggéey jëm ci nit lépp lu mu def ko jëmee ko ci yàlla perte na ko te dana ko rëccu l'islam nag non réer la réer rek lay xeex yonente bi salaa ba mu tàmbalee ba léegi ba bi mu fi jóge mu ngi xeex réer am si yi dafay bari trop jamono bi laaj ko naka noonu li ñu wax ouvrage bi côté bàkkaa la di ko wax maanaam toog loxoy kese bañ a def dara noonu la ko l'islam bañe alquran dafa ne waa ay loolu ma sawa min quwwati mu'min ribatul xayr turibuna bihi aduwallahi wa aduwakum jullit ñi dañu war a fogar fuñ toll rek nekk ñu yew ñoo xam ne seen xel mu ngi teew ci ñoom faw jamono bu nekk ñu seet la mu war la mu laaj la fa gën ñu di ko def te kenn gën leen ca bañ di jàmbaar ndax ñoom dañu war a def seen xel ne ñoo war a moom adduna ñu war a féetib nit ñëpp kaw ñu war a gën nit ñëpp ci jikko ak ci cawarte ak ci xam-xam ak ci melo wu nekk waxtu wu ñu sàgganee ba keneen fab ko seen alal la kooka fab waaye ñoom ñoo ko moom ndax ñoom ñoo l'islam mooy diine bi nga xam ne moom moom yooyu yëpp te ñoom dañoo xàggan ba ñu jël ko ci ñoom ci passion ndax bi aay jël wàcce waaye ñoom su ne ko ci ñu baax xalis bi bi adu adu bokum euh julit ñi l'islam mooy diine bi nga xam ne bi ñëwee dafa boole ak diinu wa dawla maanaam ngoo ci adduna ak diine ndax diine ji mën a mat ndax ngóor gi mën a superviser jullit ñi ba ñu sañ a jëfandikoo lépp loo xam ne diine sant na leen ko ba du am keneen ku bokk seen diine ku leen yiir di leen tere loo xam ne lii diine leen ko sant ba tax na jullit ñëpp dañoo fàggu leen seeni doom fexe ba formé leen def leen ñu di ay soldat di soldat yi diine yoo xam ne waxtu wu diine soxlaa ñu jóg te waxtu wu ñu taxawee taxawal diine bay sëkk la ñu taxawal mat ko sëkk te daal di faj soxla ka nga xam ne moom la l'islam soxla ba tax ñu jóg naka noonu diine ak ñooñ diine te l'islam tax may wax waruñoo sëgg ci kanamu kenn waruñoo sëgg ci kanam lenn maanaam ci mbiri adduna ci maanaam xeetu jullit fépp foo xam ne am na foo xam ne fii gis nga ne ñi ngi fay war a fuufee l'islam wala ñu ngi fay war a toroxal jullit wala ñu ngi fay war a def loo xam ne nii day fuufeel diine bépp jullit bu taxaw loola fardu kifaaya la bépp jullit bu taxaw taxawaayu julli loolu la am nga daraja joo xam ne yowmal qiyam képp ku deful na nga def dana la ca ñee sallallahu alayhi wa sallam nee na inna qatla aliyin limni abdi wuddin afdalu min ibadati saqalini loolu mooy lan omar ibn abdi wudd amr ibn abdi wudd benn yemat loolu boo xam ne dafa amoon kattan ba nga xam ne bu ñu mataan jikki ngaax yi nga xam ne gëléem yi lañ koy sëf di ko tegle moo koy yëkkati bopp teg ci ko gëléem di nit koo xam ne dafa xam ne li ñuy wax escrime maanaam xeex xeexee jeeti mu nga xam ne kenn ñemewu ko benn bis ci xaybar ba mu jógee sànni jaayteen jooju wëndeel ko aw ko ne eh yéen ñu ne yéen jullit yéen tuddee seen bopp ay jullit nee ngeen nun ku nu rey suñu jaay yi ci yéen koo ko dem àjjana yéen nag ku ngeen rey ci nun koo ko dem safara kon àjjana yi gannaaw gëm ngeen ko ku ma ñemee ci yéen na ñëw rek ma yóbbu ko àjjana léegi wala li ñuy wax dëgg ci yéen yépp ne pat Aliou Abi Talib booba xaleel la yaa ngi fukkeet ak juróom-ñeent radiyallahu anhu mu ne yàlla sa man maa ngi dem da xeex ak waa jooju mu ne ko toogal kooku Omar a de Omar na duut naa lim toog Omar na duut dellu sànni ci jaay ci dellu bàkkooti bi dam waxati la mu waxoon kenn ñëwee wala yëngu ak lim bi man dama cay dem dana dama ne ko naa Amar na duut la bu dem ba ca ñetteel ba dana dama ne ko ah Amar na duut la def mu ne ko même bu dee moom itam ba mu demee conférence bi day du xaaj sax yaakaar naa ne xaw ma dana am ay question wala déet temps bi jot na ngeen jéggal ñu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu xam ko taxaw ci bu naanee beneen bu kii am na ci yoo am solo yoo xam ne itam mu ngi ci kanam maanaam ko waaye daal jamono bi mayu ko te ngeen jéggal ñu kon daal tabarkalla tabarkalla waaw ñu kon nañ jox sëñ bi imam bi mu conclure ñu daal di kii bëggoon nu wéy lool daal xëy na waaye kon it dana yàgg te du jeex di xaaj alhamdulilahi rabbil alamin